macha allah macha allah bisimilah. Cheikh Sylla ziar naa la baax Cheikh di nuyu di tàmbali Cheikh di jaajëfal kenn ku nekk rek di la jox sa tur ak sa wàccuwaay euh, ci ñi nga xamante ni ñoo fekkee woon démb xew mi. mënuma lim ñëpp képp ku ma gisee tur naa fexe ne tout moom ma mën a jaajëfal ñu si bari parce que te damaa ñëw pour bëgg a tuuti. waaw waaw copain rek gis vidéo ma donc euh, dama bëggoon def de vidéo de remerciement di gërëmaat patriote Euh, xam nga xam nga dafa am loo xamante nii daa baax ñu koy wax nit ñi kenn mën leen a forcer ñu waxal la ay baax baax wala ñu lay seedeel loo xam xamuñu ko ci yow gis nga tey si tey maanaam démb boo xoolee soo mbokk yu bari dañ ne ah war ngaa gën a góorgóorlu ndax c'est patriote yi de nit ñu la seedalee zémb ndax ku ma xam-xam ne ay affaire anniversaire yi bokk ci loo xam sax dama koy feete mais dem boo xoolee patriote niñ taxawee euh, fu nekk ñu taf ma fu nekk ñu souhaité ma ku nekk di ma dugal di ma ñaanal sant yàlla la donc li nga ciy jàngee rek mooy euh, nit ki buy nit ñi bu ñuy uti ay xaalis ak ay kii yoo dama wuti doomu aadama yi parce que nit nit nit nitay nit nitay garabam wala du nit nitay garabam mais nit nitay garabam koo mën a wax parce que gars yi gars yi baax nañ daal gars yi baax nañ te ci seen baax googu foog nga gisante leen gërëm leen wax dëgg fa yàlla mënumaa ñàkk di leen jaajëfal mënumaa ñàkk remercier leen parce que tamit bëgg yëg koy fay nit ki la bëgg ba boo xoolee ku nekk bu ubbee tagee na plateforme bi ñiy ñii la mënta parce que sax ñu ci commentaire di la souhaiter joyeux anniversaire donc foog nga sant leen gërëm leen ñaanal leen yàlla yal na yàlla fay yal na yàlla fay ñoom ñëpp parce que wax dëgg yàlla euh, euh, mënul ñàkk daal waaw Seydina Ousmane merci beaucoup maanaam maanaam projet bi dafa dafa dafa dafa nit ki boo ci nekkee ànd ak sa xel ak sa sagom mën ngaa doon lu ne te mën ngaa am lu ne parce que projet bi gars yi dañ cee nekk am ñu ci nekk désintéressé wu nekk te yàlla tax bëggante te yàlla tax jàppante te yàlla tax donc te loolu pour man moo ëpp njariñ mu ëpp mu ëpp valeur xaalis ay fallu naa ay pasook ay yëpp nga nekk ci xolu jaam ñi mu ëpp njëriñ ndax nit am na alal te mënul nekk ci xolu nit ñi yéen a ngi gis sama sama doyen Bougane lu nekk mu ngi fay jaar lu nekk mu yàlla may na ko teraanga lépp mais mënul nekk ci xolu kon donc bu la yàlla defee nga nekk ci réseaux yi di kafante gars yi ngeen tooñante mbaa gars yi ci bëri dañuy gis koo xam day nekk ci commentaire yi maag moom xuloo waxante lu nekk def lu nekk mbalagante te mosuma gis mosuma ko gis xamuma xam xamuma projet bee ko may projet bi moo ñu may ñun ñëpp loolu kon donc loolu waruñu koo caaxaane dañ cee woon a gën a góor gis ngeen sama diggante ak Idi Dion waar hmm? nga xamante ni nii maanaam mbëggeel boobu sax dafa dafa dafa dafa dafa jéggi dayoo laa mel ak Issa Diène sa tonton day live euh, noonu laa mel ak Issa Diène mel ko Babacar Sadikh Diop mel ko Samba Seck mel ko euh, Massamba Diop mel ko ay kon Niass mel ko mënumaa lim Cheikh Anne Mollah mënuma lim ñu ñu bari su ma limee damay damay manqué Momo Oji Papa Digno samay rak ak ñi ma mag ak ñoo xam maa leen ñi nga xamante ne doog ñëw ci jigéen ñi jigéen ñi moom damay ñëw en unanimité ñoom nag xam naa ne dañ maa safoo man xaw ma lan la xaw ma nag da ngeen dafa fekkente ne dafa am loo xam dafa nekk ci man lu spécial ngeen wax ma ko tamit parce que xale jigéen bëgg nañu trop trop te jigéen ñi moom dama koy te ko loxo Bongo Ndiaye parce que maanaam relation bi ñu am dafa dafa dafa jéggi dayoo démb dañuy appel trilé trilante li ci gën a neex mooy dañuy jékkee def ay appel ñetti nit ñeenti nit nekk ci appel bi ñuy waxataan di xam nga loolu loolu projet bee ko maye wallahi projet bee ko maye damay jékki-jékki rek xool ay yoo xamante ni nii ma jékki-jékki ñaata nit laa boole ci ci ci appel appel whatsapp wala appel kii jékki-jékki rek dugal diw dugal mosu ñoo ma jékki-jékki comme man xam naa ni euh, kii laa nu ngi koy waxeeti sax euh, célébé yoon laa damay jékki-jékki woo idi jékki-jékki dugal euh, koo xamante ni kii pour nit ñi xamante parce que loolu la yàlla yàlla loolu la suñu borom bëgg daf ñoo bind pour ñu dajaloo ñu ñëpp ñu mën a xamante ku nekk di jëriñ sa borom da dégg koo xam ne seen après bu pare après pour ne pour diw di mosuma a projet projet bi pour mu mun nga mën a xam valeur am xam nga tax sama genre gi ak idée nañ ko comprendre ba nga xamante ni noonu lañ koy dundee maanaam mu mel ni ñu mel ni ñoo xamante nii xam nga maanaam ay doomu bàjjana doomu nijaay lañ parce que comprendre mooy l' essentiel projet bi parce que maam dañuy ne ci terrain bu ñu nit ñi waree am lu ñu ñun la ñu dem ma ànd ak Idi ñëw dëkk ko nii teg ko sama wet ñu ànd c'est-à-dire lool lool loolu loolu alal mënu ko jënd quoi nit ñi foog ñu xam lan mooy relation lan mooy njariñu relation ak bëggante te yàlla tax mais nit ñi bu ñu bu focus ci alal bu ñu fukki ci ay am-am ci ay privilège ay luxury amul njariñ ndax tey man su ma neexoon damay jéem a ñoddi affaire luxury mais lan la may apporter mais tey xoolal seede yi ñu seede ci live ci ci ci live yi post yeeg yooyu nan da wàcce bu la neexoon nga mel nii bu la neexoon parce que dama gis njariñu loolu njëriñ loolu mooy da gis koo xam ne des fois mu wax ma benn moo wax ma day ëpp dama koy wanaasu parce que xëy na mbëggeelam ci man la ak bëgg sëq ak man yu bëri mooy tam waxee noonu tey ji Idy Dionoor moo mag moo magee même bu dee trois ans wala deux ans moo ma ko magee mais nangul na ma lépp ma koy wax lu nekk di sëq moom nekk te tamit nekkuma ci làmmiñam ci xolam laa nekk moo tax tey bu mu maanaam man xam naa ne nekkuma ci làmb Idi ci xool naa ne barki démb am na ku ne ma non Idi non dafa dëkkoo ma ne ko Idi xam nga la mooy problème man a wax nit déedéet loolu mooy jafe-jafeem nit bu ko du ma ci mer dinaa ko ci def loo xamante ni bu ëllëgee su ma ko waxatee dara dootu ko dootu ko dootu kii comme moom tamit suma soxlaa Issa Diène tamit noonu nax nu saalika noonu la ñuy dundee maa ngi moom Babacar sa Diop jóob saa di dafa dafa dafa dafa il faut que xam lan mooy non <laughs> yow wax naa la romb nga <laughs> xam nga li ma li ma neexaay procès bi yow tàgg naa li ma la tàgg ne la jigéen yow laa jël lépp teg ko sa parce que maanaam ni nga ma wóoloo doyloo ma loolu dama ko dama ko wax ba démb bàcc sa am sec seede na ko bañ lay appel trois appel en trois parce que maanaam doo loo dugg di ma laaj sama xalaat waaye seen i noo xalaat ci man la noo defal nii defal nii defal nii maanaam démb seede ko ci kanam bàcc nga ne bàcc man Siny dama ko wóolu ci sama lépp te loolu mosoo maa gis bët ak bët mosuma laa gis mais Ousmane Sonko moo dox loolu projet bi moo tax nga dem ba am na ko góor sama benn càmmiñ sama benn góor bu nekk Sénégal bu tudd Seny Sène wóolu naa ko ci sama lépp du ma ko nëbb sama dara ma waxtaan moom kon donc seet naa ko coow te démb wax nga ko bàcc tamit maanaam ni ñu bokkee ndey di xamante di di di demlante di dikkalante di wootante di seetante man départ naa fii seeti nit bu nekk Allemagne maanaam tey jii tey maa ngi nii li préparé bu ma yàlla dimbalee incha allah balaa ma dellu amat dinaa dem seeti Issa Diène Bordeaux dinaa dem seeti Babacar Seye Italie dinaa taxawaal tambaambalu Europe dinaa ko def dinaa tambaambalu ci mbeddi Europe yëpp dem seeti leen parce que maanaam bu la ko yàlla mën looyu boo ko mënee def ko parce que wàññu ma dara ma départ fii dem seeti leen ku nekk ma dem fa moom bu dee benn fan nga fay def wala da nga fay def vingt douze heures temps six heures ngeen gisante loolu loolu loolu projet bi moo ko waral donc maanaam pour wan leen ni njëriñ projet bi du ci ay falu du ay poste du ci am-am mais yéen nit ñi jàmm bëggante jàmm gis nga projet bi képp ku ci nekk te yéen nit jàmm bëgg jàmm wallahi jàmm rek am nit bu fi nekk yéen nit jàmm bëggal ko jàmm di ko du maanaam amoo lenn loo xamante lu ñuul la nekk soxal wallahi jàmm rek ngay am parce que yàlla moo ne wàcc leen seen bopp ma yëkkati leen nit a ngi fii di jéem a yëkkati boppam di forcer boppam ci ak yëkkati goo xamante ni nit ñi te konte wuñu sa maam ak koo mën a doon benn seen i nekk fi di def lu ko saf ay déliram ay tojo tojam lu ko saf xale yi bu ñëwee góor a jigéen ñëpp a koy safoo di ko bëggee maanaam lépp seen lépp ne neex la ndax lan parce que dañoo gis ne da ñëw wàcce sa bopp toll ñoom jaay leen dara parce que ni kii kenn du fi jaay kenn leen fii ku fi jaay nit lu fi waaye nit mën a jaay mën na koo jënd ndax man tey su ma nekkee sama sama sama nit ñaata ne tey ñoo nekk ñoo xamante ni tey mën na ne buñ déggante boo ma boo njaay baa ñu si xam dara mais Bongo Ndiaye yàlla foofu lépp daal di man seen laay jël seen laay nekkal seen laay waxal seen laay mooy sama complice kooku da ko mën a fay loolu tey moo tax man sama sama sama sama sama spam ak sama message du kenn nit koo xamante ne nii dinaa bàyyi seen message ñëpp laay tontu seen message parce que loolu laa gëm man man gëwuma ñoddi gëwuma ay kii parce que noo fi mel am na ko fi meloon loo fi am ci am am na ko amoon noo fi toll ci daraja am na ko la sutoon daraja kon dara jarul jaay kenn te loolu dama ko nampé ci sama yaay nit koo gis mun la mère Dial xoolal ni mu yore fee mère dafa baax mère boo tasee moom da nga yaakaari moo la jur mère fu mu romb mu ngi fi parce que loolu mooy àdduna àdduna ku ko comprendre doo doo xëccoo ñot di di ñànqaliku te bu sonnee boo lekkee ba suur naan ba màndi di nga dugg ci duus bi toog jonkan ndax nit kese nga ak koo mënti doon kullu koo mënti doon boo lekkee ba suur naan ba màndi di nga dugg ci duus bi jonkan ndax lan parce que doomu aadama da ngay def yëfu doomu aadama kon dara dara fi jaay ay ñoddeeg ay maqaam ak ay kii donc maanaam loolu boo déggee ma waxee noonu du question ñàkk kersa wala dara mais pour wax ne dañoo war a wàcce suñu bopp ñu modeste ñu humble boo leen xoolee xool leen Ousmane Sonko des fois xool dem bi mu tuddee Ngoné Sall rek mu ngi kontaan di ko def benn geste boo xam def ko genre kii mais dafa reex ci xolam parce que kon nga xam ne mu ngi bàyyi xel ay nitam. ñëw rek romb la tudd la waaw nga Ngoné Saliou bala mu jékki-jékki romb benn Lamine Niass ni ko Lamine c'est que yooyu yooyu yu yàq fayda la mais yu am njëriñ la ci dund doomu aadama bi yooyu dafa am solo loolu nag bu ñu kenn ku nekk bàyyi xel rek yaakaar naa mën nañ mën nañ mën nañoo avancer loo ci lu bari daal yàlla mosul ñu tamit ci nit ñi nga xam dañuy nekk suñu biir te dañuy foo am na ci am na ci am na ci ay benn benn ay nit yoo xamante ni da ngay am expectation que ñoom dañ la bëgg te yàlla tax wala dañoo dangaa sori ci ñoom fekk na offet fait dañu foo genre nit yooyu am na genre nit yooyu nag nañ ci yàlla musal xam nga tax parce que dafa doon am nga xam nga noonu bu jege dafa dafa doy waar parce que doo sóoraale doo maanaam da koy wóolu sa lépp da nga koy wax sa lépp da nga koy dugal sa bopp sa lépp da nga koy ubbil sa bopp sa lépp fekk na au fait moom il a quelque chose wala il a quelque chose boo xamante ni ci xolam maanaam wanu la ko loolu yàlla nañ ci yàlla musal parce que dafa dangereux parce que mën nga am sa déception sa déception àdduna yooyu dafa am solo parce que mënul ñàkk mbooloo fu mu am rek dina am ay intrus dina am ñoo nii après dinañ la defee nii am ñoo xamante nii man xam naa ci ay histoire yoo xamante nii su ma ko nettali woon wallahi ay histoire yoo xam mënoon naa dem sax police histoire waar te li ko waral kii dafa wóolu kii kii am confiance kii après kii doxale di donc maanaam nañu suuraale bu baax ci yooyu noonu parce que yooyu noonu am na ci am na ci de am na ci man patriote xam na ma patriote xam na ma xam bu gaaw ci diggante bu gaaw ci un mois mu dégg may wax téléphone am ku ne ko man de dama soxla deux millions parce que lii ak nangam sangam mu jékki-jékki ne ma la mooy sa compte banque mokk mu transféré ci deux millions ma ne ko ne mu ne ma non parce que wóolu naa la jox la ko xam nga kooku te fekk boobaa boobu sax man maa ngi doon xaar benn somme bu colossal sama compte ay millions yu bari sax mais maanaam dégg na ma am problème boobu rek moom mu def ko mais alhamdulilah delloo naa ko boobu ca booba sax waaye xalaatal tey bu tase woon a ku bon mën naa jël alal joo def ci noo xamante ne nii amaana mën na ko lor donc nañu nañu nañu nañu nañuy bàyyi xel ne am nañu ñu suñu biir ñoo xamante ni xëy na meluñu suñuy jikko ñu suuraale loolu parce que loolu mënul ñàkk ci mbooloo dajaloo fu mu am rek dina am ñu naaw. ayu naa Sonko non tey moom tey moom dama bëgg xaw a waxtaanee ci gars yi tuuti rek parce que euh, lu ñu boole moo lu ñu tàqale. lu ñu boole ñun patriote moo ëpp lu ñu tàqale te suñu doole ak suñu foor comme ni ma ko yàgg waxee mooy. boobu euh, euh, euh, bëggante bi ñu bëggante yéenante jàmm di jàppalante ñun si sunu temps nga gis nga gisee social bu metti bi am ci réew mi ñuy dimbalante dimbalante bu metti di ko dajal di ko mottali kenn par kenn fukki dërëm par fukki dërëm jox mu faju dimbal parce que loolu noonu bés bu ñu ko perte dañuy perte lépp te loolu moo tax tey ñun fi nekkaloon doole jën amoon yëpp ñu gañe leen parce que ñun dañoo social woon dañoo bëggante woon dañoo yéenante woon jàmm loolu lañ ci continuer man xamal laa dul nangu ñuy dox ci mbiru ku ku ku ku far nañ kii faluñu kii jox nañ ci responsabilité jox ñu kii responsabilité parce que fii ñu ngi teg suñu bët ci yooyu du ñu avancé parce que dañ am benn ñëkk-ñëkkal suñu xol li nga ci mérito say mbokk wala li nga ci daj li nga ci def li nga ci mérito rek nga commencé am noo wàññee wala mun bugguma loolu dañu nekk gis ngeen man kenn génn maanaam mënoo leen fi indi nit ku ma gën a subir xam nga bërki dem ma demee Walfadjri rek xam nga dèjà ubbi bi saa njóogu ubbi rek dafa dafa am lu mu def ci man lu bari c'est est-ce que dem ngeen ngeen déglu ubbi bi saa ubbi maanaam bi jël position jafee nga am image nga taxaw jël position ñëpp taxaw ñu bëri kii ñaata nit la Ousmane Sonko fal wala ñu kii mos ñoo nangoo jël position comme ni ma nangoo jël mais maanaam loolu bokkul ci maanaam lu may lu ma maanaam nit ñi bu ñu gisee rek ba xam ko loolu rek doy na ma sëkk. parce que loolu tax damay tax ma am fierté ci sama bopp xam ne man kon naka ba ma jógee di bëgg mbir mi jàpp ci boobu bëgg ko jafe na jàpp jafe donc moo tax man dara mënu maa naqari fii maa ngi nekk ci patriote di kaf di ree ñuy bëggee di jàmmoo di saafonte di seetante di gisante di waxtaan man lan moo ma intéressé ci leneen li nga xam moo am ci mbir mi. nit yor na fi lu nekk kenn faale ko kenn lijjantiwu ko ñaata nit ñoo fi nekk yor ay poste bu ñu posté benn mbir dina jël ay jour balaa ñoo mën a àgg sax deux cent deux cent deux cent j'aime wala ñu àgg kii j'aime yi donte amul njëriñ mais yow yoroo dara mais boo dugalee dara nit ñi danañ ko partagé danañ ko aimé ba nga yow sa yaram day daw kon donc loolu nit maanaam da ngay xam ne yàlla jox ci cër. te man yaakaar naa cër bi ma yàlla jox bi ma gën a neex mooy cofeel gi ma nekkee yéen ak bëgg toog di ñëw di kaf di ree di di di di di di tooñ di mbalage grand Ousmane Tounkara baal génnal foofu grand Ousmane xam nga xam nga yow kilifa gaay nga kilifa xale yi nga xam nga tamit ne nii mu yow leer mënu ma laa mag mënu ma laa mag mais projet bi ma waral heure boo ma gisee rek kontaan Ousmane Tounkara heure bu ma gisee Amérique wallaahi xoolal lu muy def ba jour élection bi ñuy voté heure bu ma gisee tamit bàyyi lépp loolu est gis ngeen projet bi li muy may doomu aadama maanaam man nit nekk na war a dem war a dem aj màkka passeport mu soxla ko ci 24 heures ma woo diw na ko damaa soxla passeport nii nii nii nii mais mu mënu ma ok nag ñoom bi ñëw ñu defal ko passeport nii nii nii mais yow gis gis ngeen loolu projet bi di la may maanaam ci doomu aadama yi wegg giñ la wegg naw giñ la naw lan la la mën a ren nga mën a am ci àdduna lu gën a neex loolu cest à loolu loolu mënuma ko ñàkk di wax Babacar bu leen yàq live ba parce que bu fekkente ni su ma jógee pour wax lu sérieux ngeen ñëw di def seen yii yaa ngi dugg di ruube Ousmane Tounkara nga dugg di ruube bu yàggee damay dellu ci sama programme ndax tey Idy Diadoua dafa bégal sama xol bi dafa dem ci jumaay Seexul Xadim ji dem dugg fa tudd fa turu Sonko tudd fa turu Jomaay tudd fa turu kenn dafa nodd ci kaw ni seeni seen mais bu leen soxor loolu na ko wax loolu mënoon ko waxtaane parce que loolu ak vrai que man ku ma def ku ma def damay defanteeg yow waaye bu ma defanteeg yow ba nga xam ne nag ñëpp dem du ma bind Idi yaa tooñ yaa tooñ ji ma ngi commentaire rek après su kontaan naa Idi yaa tooñ Idi yaa tooñ Idi révolution ko xool rek Idi dafa tooñ ba ñëpp xam ne Idi moo tooñ mu dem baalu tuub muuru dem ci jumaa ji ndax man wax naa ko nee képp ku ma tooñ boo mënul jot jumaay Màkka ji Medine demal Touba nga jëm a kii wala nga dem Tiwaan foog nga baalu ma baalu bu sincère te bi ma woowee ma ne ko demal ba Touba ci jumaa ji nga dugg nga baalu ma dinaa baal mais defee na ko noonu te loolu mooy l'essentiel projet bi Babacar xaar maa ngi lay jël mais ma àggale par ndax da ngay ñëw pour pour pour ruube sama sama live comprendre nga def na ko dem ba ci jumaa ja gis naa nag ay bongo njaay di suusu naan sax iri tudd lee nag affaire de tudd dañ koy mérito waaye tamit tudd bu fekkee dañ koy mérito Ousmane Sonko tax tudd ma tamit moom it mais Sonko moom mën na mën mën ñàkk naa mën nitam mooy di tudd ay ngoone saaliw ak bàyyi ma fi Sonko tudd Sonko Sonko foo <laughs> na de baax anyway anyway te par idi te maa bañ a commencé at beneen front tamit nag non dinaa takk soxna moom Ousmane waaye gannaaw Ousmane c'est que dama bëgg xale bu mool xale boo xamante nii dama koy xool sama yaram bi di daw <laughs> gis nga xale bu bu bu bu cekkete laa bëgg xale boo heure ma ko xoolee sama xool bi day day day day bëgg xam nga am na jabar yoo xam ne dañ lay motiver pour nga dund boo feebaree sax da ngay lekk. boo feebar dangay nan ay garab ndax da nga bëgg a ndax bëggoo fee bàyyi genre jabar yooyu laa bëgg jabar yoo xamante ni dama ci hmm, dama takk soxna mais soxna bu garaaw xale bu taxaw bu laa bëgg ñaanal leen ma ko mbala boo leen amee loolu ma ko ma ma yër mais buñ ma ko may nag may may ko ko diñ ku jantal barki sëñ Tuubaa ma def nii ma ci laal laal rouge à lèvres man na moom non mais neexu ba neexu babakar sadiq mo barke seigne touba sa jabar da fay jaamu ci bay babakar da nga ñaaw neexu ba neexul ba ma la gëna bo ma la gëna jantal wax deug yalla lool mo man xam naa ne man war naa te amna jom man mom xam jigen bu baax bu ma gisee warna ma maa bëgg parce que lepp lu goor di ut yalla wax deug yalla maa koy ut jambar la mën na mën na yor jabar mais babakar neexu ba neexul ñaaw nga ñaaw yak ibi no idi doo wax dara parce que babakar Babacar dama bëgg duggal quoi pour mo wax ibi ay affaire fi quoi mais nak ibi ñaaw na de <laughs> te mën ibi xool leen xool leen ñi ma choisir di ànd ak ñoom Idi Babacar Sedikh Issa Diène hmm? ñi nga xam ñoom laa choisir di leen di leen di leen taf sama wet xam nga maanaam seen ñaaw day flagrant xam nga su ma tëdd nga uh, xoolal bi parce que man damay soupçonné ñi may àndal parce que xool ñoo xamante ni neexul ba neexul. waaw kat yaa ngi may cuq quoi franchement Idi daf maa baalu tey maa ngi ko Idi Idi baa ngi jégalu parce que xam nga bëgguma dugg foofu quoi. neexu ba neexul dama maa ngi jógul quoi parce que baaw ko daf ñu bëgg a jaxase saytaane la quoi daf ñu bëgg a jaxase quoi neexu ba neexul daf ñu bëgg a jaxase instant bi baa ma fi ma nekkoon gërëm patriote di sant len parce que tey def nga lu rafet geste boo xamante adna àddina nga koy magnifier il dafa dem ba jumaay Touba tudd noddu fa yuuxu si turu turu jëwriñ xam ne seeni seen yow laay ñaanal si xoolal ko il ñaan ko xaatal bu nangoo rek il ñaan ko bu nangoo lan laa war non ñaan ko bu nangoo dina sama xol dina sedd it ñu nga dem ba Touba ñaanam fek déer mom suma gisul ak yokkute moom it xam ñaan gi jappul hein non non xam nga la nga bëgg la ngeen bëgg gis na naa yépp nak hmm waaw aw mbacke Idi daa baax non amna na won dañu bëgg ma continuer front bi ak Idi duma ko continuer parce que li ngeen bëgg xam naa ko parce que amna sax ko ma jox benn soupçon bo xam bayu ma ko woon xel mais batay dama aju mun ma jëriñ sel nga benn affaire mané ko na mo sel nga Idi commentaire ay góor ay jigéen lay tontu du tontu commentaire góor yi. bi mu waxee lu après damaa dem ci beneen kii live am vérifié gis naa yu mel noonu mais man lan moo tax ngeen choisir ma front ak Idy te xam ngeen Idy waaw pa pa ñëpp dèjà man front man maa ci perte. parce que man ñëpp rus Idy man kenn rusuma xam nga dèjà benn premier ay premier problème woowu ñëpp dañoo rus Idy man kenn rusuma lu leen neex dañuy ko dugg tonton Idy moom vaal ko waa tonton Idy nii. après daal di may wax lu ko saf té dañuy xal di ma am deug kon xam nga man front bi sama avantage neeku ci mais dama mën front dama mën front parce que duma bayyi ala accu rek lay def duma bayyi mohammed mbake ma lay ziar bu baax a baax hmm. <laughs> <laughs> li nga bëgg xam naa ko de mooy mooy wax Idi Moussa du ma ko def de Idi idée ma gën a jëntal idée ma a baax idée gën lépp idée idi mooy sam papa waaw idi mooy sam papa loolu voilà loolu laa wax waaw kay mhm. loolu laa wax idi <laughs> loolu loolu mooy dooma jaxase idi idi sam papa la duma du ma ko wax lu ko naqari ngay jéem ut koo jaxase noonu sa biiwu boobu ñëw fii booy bu ndaw mënoo waaxu ñaari wax sa tànk bi nga ko damm ko fi delloo Amérique vacances sax ma coo ko àggal dama jéem a jaxase idi boo xoolee ay moleem idi tànk yi moo taxaw idi day dem ci suuf si di maasu kanaara idi mu lu gën a mën maasu kanaar ne ci cox bi di maas kanaar di arrière idi lu muy def yow attanoo ko idi lu muy def yow attanoo ko idi yow lu yow idi des fois gis ko mu nekk ci situation yoo xamante nii man damay gis ki man kii tànk yi arrêt kii dafa fees gis ko mu yenu affaire yoo xam ne damay xam ne kii dafa liggéey idi bokkul ak yow <laughs> nga bëgg maa jaxase ak idi <laughs> idi sama doomu ndey la idi ni ma ko bëggee bëggee ma ko sama bopp bépp seytaane bu taxoon pour sama diggante idi yàqu di nga rus tey idi idi moom gënal sama bopp idi jonaar moo gënal sama jëmm ji fi ma teg idi teguma fa sax sonko <laughs> xanaa looloo gën a dee fi ma teg idi teguma fa sax sonko ndax idi amal na ma njëriñ mu ngi dem ba Tuubaa di ma ñaan sonko amal na ma benn njëriñ <laughs> ngeen xam ne idi doo leen ma jaxaseeg idi de euh, bi yëpp ay abs la tànk yi moom v biir bi def ay six pack man idi dama ko man idi ay sama yalla mënon def ma mel comme idi duma ko sax gëmé ci tar ci ci abdominaux hmm, ci entraînement tanki idi kañ lay dem januar dama ma préparé dem ñëw januar sax and ak idi vacances île de salum ag <laughs> fofu ina ay séeréer dafa nek nak te man seen laa sant dem fofu wallahi billaay oh yaay xalifa yaay xalifa jox sa wéev après am nga foofu naa la fa yónnee kii cinquante mille li nga wax noonu dafa idi mooy jëwriñ jëwriñ mooy idi sama diggante moom lëndëg marit la bis doxul ci diggante bi seytaane bu nekk Italie bëgg sa ñaan nangu na waaw sama diggante idi jàmm rek a ci am parce que réeroo la woon rek xam naa lim def noonu lu gënalu ko mais réeroo la woon seytaane ñoo ma doon woo rek naan ma idi lim def dafa ñaaw <laughs> xam nañ seen bopp Amina bul wax loolu tamit lan la pour waat ma pour lan tamit ñu ngi ci jàmm fi mu toll nii xoolal nañuy kii nii Diomaye ngi doxal Pékin Sonko ngi rëqandi gi fii waa Assemblée ngi xaru waa APR ngi daw xam nga ñun ñu ngi kaf di kii di dajaloo di def ay añ yendu te temps yi bëgg dajal te fii nee naa mbaxal soo saa bëgg mooy mbaxal borom ñaar tur yooyu noonu moom laa bëgg ñu def ko dama bëgg yooyu ay mbaxalu góor jigéen ay genre ñu woo patéro ñu def benn mbaxal tàkkusaan noonu grand ma Samba Diouf moo ma ko jox nag moom dafa bëgg ay yooyu ay xeetu mbaxal yooyu naan ma ay mbaxal yi fat façon mbaxal yëpp la xam waaw non seytaane moom dinañ toog sama diggante idi moom jàmm rek a am xam nga problème bi mooy kebe da ngay saboté quoi baal loolu quoi man anyway waxal ko sa bopp dama nga posté loolu man loolu sama sama diggante idi moom du ma ci wax lu ñaaw waaw baabukat xaaral ma xaaral ma sax ana baabukat dugal ko sax dëgg diggante ak ma may nit mu wax ci Idi Idi c'est mon c'est mon jumeau Issa dama ko dama ko dóor ci xeer Idi c'est mon jumeau mooy ne allahumma amin allahumma amin waa mais nga nekk ma nekk Sénégal mais ñaaw <laughs> <laughs> Babacar xam nga ni xam nga ni musu am xarit bu coofe <laughs> yow xam nga loolu sax. waaw <laughs> kay war nañu sa jabar war nañ ko defal soxna si war nañ ko defal euh, kii une Kopar Express dajale ko jox ko parce dañ ko war a gërëm parce que kii bu jàppoon dina garaaw du jàppoon dina nag. <laughs> Kébé da ngay xaru Kébé doo wax Kébé mu xaru ji parce que yi muy wax yëpp ay la ak koromp yëpp mu xaru ji mais Babacar waxal rek Babacar li mu wax fii ci projet Babacar. non pas que projet bi. loolu moo tax ma dugg xam nga xam nga jëwriñ euh, dafa am loo xamante ni ñun sénégalais yi dañ koy fàtte toujours jëwriñ maanaam lépp looy def maanaam di ko xaar pour jariñoo ko yow mm-hmm. xamal ni échec la. Mm-hmm. est-ce que comme naa gis nga euh, àdduna tey maanaam lu ne da koy jël exemple yow ci sa njaboot yow li ngay jëmbat nii di ko saxal maanaam du pour yow. Mm-hmm. xam nga xam nga jëwriñ bu fekkoon ne ni yow yow kese kese kese. maanaam jarul ngay sonn yenn sonn yi ci àdduna ndax foo tëdd yomb na yàlla loo lekk yomb na yàlla loo naan yomb na yàlla mais mhm. yàlla dafa mu ñum la booleel maanaam muy njaboot gi maanaam nga war leen fi bàyyi ëllëg ci ay situation yu baax loolu moo tax yow ngay sonn pour ñoom mhm. xam nga nag ñun eh, suñu gouvernant yi ñu amoon wala suñu homme politicien yi amoon mhm. maanaam dañoo comprendre woon nañ loolu mais dañoo demoon ba réew mi dañ ne dañoo jàppoon waa réew mi lu baax te képp njiit boo gis muy muy njiit boo gis muy muy muy muy muy muy liggéey pour jariñoo ko moom xamal ni échec la man projet bi ni yow jëwriñ projet bi maanaam bu fekkee ñun ñoo ko daan jariñoo échec la échec mm-hmm. dëgg la est-ce que comme la parce que lii nii du ñun ñoo ko war jariñoo man de man gëm naa ni man intérieurement man projet bi mënumaa man njëriñ moo tax xaaruma ji sax njëriñ dëgg barki alxuraanu karim laa lay ginnal nag. projet non man eh ah. eh eh barki démb. waaw ah. jamono ci ginnaaw pas barki jamono ci ginnaaw am na ku ma woo ne ma mais yéen waa diaspora bi man dama leen santaru ci gouvernement bi maanaam ñu jox ci ay poste ay responsable waa Italie waa Amérique ay kii mën ko waxu seytaane parce que xamul tax ñun ba ñu yàlla seppee yóbbu ñu bitim réew ñu nekk fa di tedd ba mën a teeral ba mën a jàpp ci projet bi mu naa ah, ngeen ñëw bëgg ñu def noonu comme ça ñun dañoo war a gëm ni ñun lañ a jox poste yi ñun lañ doon xeex mooy Sénégal bu baax ba suñu mbokk yi nga xam ne dimbali ñu nekk ci ay am hôpital yi baax am tëli yu baax am dëkkuwaay yu baax am avenir bu baax ñun loolu lañ doon xeex waa xeex nañu ba àgg ñenn ci ñun ñu ci jox alhamdulilah dañuy sant yàlla ja di leen ñaanal mu barkeel waaye ñun nekkuñu ay demandeurs yoo xam dañuy mel ni dañoo gën ñu fi nekk bay laaj poste soog nan ñu fal poste ñoo ne ci spora bi ñun ñoo am mairie bi ma ne ko képp koo dégg ñu wax la rek jox poste na dañ lay jàppale ñaanal yàlla def mu nekk li gën ci waaye kantaa nekk foofu rek tax nga da ngay demander ay affaire parce que damaa sonn demande nangam sax am na ñoo xamante ne ñoo fii ci terrain bi ëpp lay diplôme gën laa xam gën laa sonn ci projet bi te texul kenn falu leen donc maanaam fal bi du objectif bi objectif mooy réussir par projet bi mu dugg biir palais projet bi di doxal Sénégal projet bi comme ni koy doxalee mu dem ensemble ñu tas ko ba nga xamante ni waaye ñu am mat ñun waa diaspora bi mat gu toll ni te dama la ci interpellé interpellé Ousmane Tounkara comme ni ma ko waxee moo laa ñëpp laa am mat ba ñii ñu jiital dañ koy teg ci code mu leer nañ jubal jubal gu leer nañ doxal njub ñu ñu àndal ak ñoom gunge leen bu ñu daraay ñu tegaal leen ci code parce que am nañ doole boo xam ñun waa diaspora képp ku ñu bëgg a xeexal dinañ xeew xam nga tax parce que sa ñëw Europe dootu yomb sa ñëw Amérique dootu yomb sa nekk diaspora bi dina jafe parce que dañuy am fulla ci suñu bopp ndax li ñuy def dañ koy gëm waaye tamit kenn du nekk ci diaspora bi di manipuler pour yàqal gouvernement bi ñun tamit ñu lay seetaan dañuy xeex ak yow bu fekkee diaspora contre diaspora sax waaye kenn du nekk diaspora bi di yàq projet bi waaye waa ñu nekk ñi ñu fal nii tamit nañ ko teg ci ñun ba xam ñun ñu leen xool ndax ñun ñoo leen dooleel suñu alal li ci dem dem juge ci diaspora bi génnewul Sénégal ci li feeñ ak li nëbbu ndax diaspora bi mu doon dajale ba pare ak li doon dimbalee solide ak jàppale benn par benn yi waa Sénégal def àllam ñu ko defee nag noonu la ñuy amee fula di saytu liy dox lan la ak jaar na yoon waaye toog fal ñu leen pour ñuy enrichir seen i mbokk wala ñuy jox seen i mbokk ay teranga wala ñu am ay frisé seen teranga bu ñu ko defee nii ñu wàcc jàkkaarloo waat ak ñoom te bu jàkkaarloo ñoom xam ne ci la ci ñoom dina gën a métti ci ñoom loolu moom na leer waa xam nga xam nga Seydou Ousmane Sonko Ousmane Sonko tey eh, boo jëlee historique am maanaam mooy da ngay tënk projet bi parce que usman Sonko dafa nekkoon dafa nekkoon un agent des impôts et domaines maanaam yor am salaire boo xamante ni saako ceeb bu doon jël cent mille francs dina ko jënd te du am problème est-ce que comme naan mu gis ni réew mi li tax li ëpp ci réew mi di souffrir mooy réew mi li mu am dafa féete benn boor dafa benn guddi nit bu ko jël bu bu bu ko jël bëgg ko jël aaci moo ko mu ne léegi moom loolu du ko seetaan est comme naan maanaam mm-hmm. jub tey la bakkanam est-ce comme naan nga maanaam ñu dàq ko fa muy liggéey te liggéey mooy teraanga àdduna jëwriñ xam nga tey nit nit pare perte liggéeyam pour askanam mooy ça veut dire kon moom la muy def ca moment boobu moom xoolatul njariñam moom mais njariñu ñeneen ñi lay xool est-ce que comme naan maanaam projet bi si jëwriñ maanaam boo bu ñu bëggee bu ñu bëggee réussir projet bi maanaam defar Sénégal il faut que ñun ñu bañ a xool suñu njëriñ mais ñuy xool njëriñu ñeneen ñi. est-ce que les futures générations Ousmane di tax sacrifier boppam mais du pour moom de maanaam ñeneen ñi ñoo tax le futures générations parce que bu doon pour njëriñu boppam la doon xool rek kon Ousmane Sonko du mës a génn impôt et domaine. te duñ ko mës a dàq. ndax boobaa day ànd ci li ñuy def kon boobaa ñun sax duñ xam Ousmane Sonko. dëgg la est-ce que comme naan mm-hmm. maanaam mu sacrifier boppam perte liggéeyam te liggéey mooy teraanga doomu aadama mu ànd ak yàlla. Mm-hmm. est-ce que maanaam ñu proposé ko lu nekk mu bañ mu ñëw taxaw jël bakkanam sacrifier njabootam. teg ko ngir Sénégal. xam nga loolu moo lay wane ni kon projet bi du pour ñun maanaam du pour ñun ñi nekk ci di ci xeex. dëgg la maanaam ñu ñii di xeex projet bi maanaam njëriñ gi du du si ñun du ñun la war a dal. Mhm. maanaam les futures générations yi suñu doom yeeg suñu sët yeeg ak ñi nga xamante ni juddooguñu ñooñu maanaam ñoo tax ñu ñuy xeex léegi nag. Ousmane Sonko defaat loo xamante ni c'est inédit maanaam ñu ñëw ba tëj ko kaso élection ñëw mu jël ki na ci ginnaawam ne ko kaay yow nga jiite dëkk bi la moo tax mu def ko parce que jàpp na ni moom tey li mu li mu li mu mën a def Bassirou Diomaye mën na ko def te ba Diomaye moom li mu war a def pour askan yi di ñëwaat la même chose la Bassirou Diomaye di def bu ñëwee. Mm. léegi nag foofu liñ ñu war a li war a jàngatee mooy seen ñun tey lépp luñ doon def benn dañ ko war yokk fukk. pour projet bi réussir parce que buñ toogee bàyyi leen ak bàyyi leen ak bàyyi leen ak bàyyi leen ak nguur gi kese wala bàyyi leen ak saay saay yi fi nekk mooy projet bi du réussir te bu boobaa échec lay doon ci ñun léegi projet bi ay nit ñoo koy doxal man du ma nangu du ma nangu tey ay du ma nangu ñu ne kenn warul bëgg dara wala kenn warul bëgg poste en tout cas c'est légitime c'est comme naan mais nit ñi li ñu war xam mooy projet bi ay nit ñoo koy doxal léegi ci biir nit ñoo da di koy doxal maanaam dañu war a génn ci ñi nga xamante ni ci ci xeex bi lañ la bokkoon ba pare am les compétences ak capacité yu pour doxal mbir mi parce que ñoom dañ leen di tànn rek teg leen pour ñu doxal pour les futures générations léegi ñëpp mënu ñoo bokk gouvernement léegi foofu don de soi bi day ñëwaat est-ce que comme naan parce que ñëpp mënu ñoo jëlandoo ay poste parce que tey yàlla tere yàlla tere bu ñu réussirul woon combat bi kenn du toog di wax waxu poste mais au moment où ñu réussir combat bi dafa am ñoo xamante ni tey cër biñ ki am mooy yor nekk ministre am ñoo xam ne nekk député am ñoo xamante ni nekk directeur de société am ñoo xam ne PCA mooy nangam sangam poste yi ngay dégle mais am na ñoo xamante ni ñoom xam nga la mooy nekk seen cër seen mooy ñëw créer ay emploi jàppale gouvernement bi ci côté emploi maanaam côté bu nekk nit nit ku nekk maanaam fa nga mënee da nga war a ñëw jàpp ci mais nag li ñaaw mooy taxaw di xaar ay poste maanaam mën nga ko bëgg mais doo taxaw di ko xaar maanaam doo doo jàpp yow mbir mi dafa war a post bi dafa war a ñëw ci yow par force mais bu ñëwee nag da ngay xam ni yow lii nii cër la buñ la jox pour nga liggéeyal dëkk bi loolu c'est important il faut nit ñi xam ko loolu tant que ñun ñëpp ñu ngi conscient di demee di demee ci logique boobu rek mooy problème doom mooy man xeex naa xeex bi léegi man maa ngi continuer nekk samay affaire tey ji Ousmane Sonko bu ma gisoon wóolu ma nama kay kat li yow la ci woon ok lolou loolu c'est ta chance nga dem liggéey askan bi fofu mais bu fekkente ni nak demeewul noonu da nga wara tok toog sa ñaambur xam nga nek ci li nga nek dund don de soi boobu gars yi di wax et c'est ça l'important tay révolution yi mag yëpp ñi gagné révolution yi manam bamuy neex ñom fekkewu ko fekkewuñ ko exemple benen bi Nelson Mandela mi ngi ni ñaadal la xeex benn mandala def bàyyi réew mi ñam doon andal anañu tey ñoo continuer di yor di yor euh, di yor Afrique du Sud ba léegi nga jël ay Gandhi jël ay Martin Luther King Martin Luther King ana li mu doon xeex ne ñoo ko jariñoo tey mooy noir américain yi nga xamante ne léegi ñoo ëpp doole Amérique booy xool. tey tey lépp lii sax lii sax maanaam man gëm naa ne sax maanaam méttiwul métti goo xamante ne comme yooyu gëm naa lii moom ñu ñu ñooñu ci bëri nañ ko jariñu. seen i doom dañ ci jariñu mais ay exemple laa la doon jox rek. voilà voilà mais maanaam dafa am loo xamante ni tey boo ko xoolee. ñu ngi jaar fu nekk jàllul mais xam nga tey am na benn débat boo xam gars ñu ngi koy sollicité te gis naa patriote yi bëri ñu ngi ci dugal seen loxo mooy débat wu Omar Diagne te nga xam ne patriote yi dañ leen di manipuler des fois yóbbu leen ci benn affaire boo xam ne ndax suñ gëm-gëm dafa fort tey ñu bëri tey euh, dañoo am estime ci maanaam président Diomaye président Ousmane Sonko donc euh, ñu jaar seen gëm-gëm te ñu ko fi jaar mooy ñoo xamante dañoo contrôle démb ñu utiliser Cheikh Omar Diagne parce que Cheikh Omar mën na sax def lapsus juum ci nu mu waxee mbaa mu wax noo xamante ni baaxul waaye yow da ngaa war toog ni man kenn du jaar ci man pour yàq li nga xam ñum laa moom laa xeex ay bakkan dee ay kii ba tey ñu agsi fii nit jaar ci ci benn waxu Cheikh Omar Diagne ànd ak ay nit ñoo xamante ni dañ leen di monté di propagande pour nit kii ndax tey des fois sam damay am xol bu metti su ma gisee patriote buy waxee noo xam benn peut-être bu ko gisee du neex maanaam ñu mel te gis naa ci ñu bëri ñoo xamante ni comme Moussa Kallaamu parce dama koy cité parce que sama waay la te mu Allemagne maa ngi gis mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi défilé wu ci Cheikh Omar Diagne donte Cheikh Omar Diagne maanaam juum na mais maanaam après da ngay sóoraale que ni Euh, euh, yeneen patriote peut am na benn beneen gisin boo xam bokkul ak yow bi nga gisee like c'est-à-dire que ni maanaam Cheikh Omar am na ñoo xam te am na ñoo am ñoo xam ànd ñoo ko nëbb samay nit leen samay mbokk samay famille samay xarit ñoom ñu gëm loolu dama leen koy respecté nekk ci ñoom ci jàmm parce que man aw ma mentalité wu euh, maanaam man rek maa baax wala man rek maa gën man du ma doxee noonu. Mhm. donc tey bu ma gisee tey ñu ñu dem ñu ñooñu nga xamante ñoo doon yàq démb tey ba tey ñoom ñoo kon ne di yàq xam nga tam wax la ko tey xoolal lu toll ni tey pour utiliser message boobu tey bi ñu demee Bourdou ba mënoon nañu waxtaan leneen ñu sunoo ba Cheikh Omar Diagne parce que président Diomaye président Sonko jiwuñu Tiwaawan wala Touba yu mel noonu mais nga dem toog ci digg burdu bi di indi problème Cheikh Omar Diagne foofu ndax lan mais sa gis nga maanaam gravité affaire bi maanaam Cheikh Omar Diagne moo nañ ko waxtaane ñoom message président moo nañ ko mais nga dem toog ci digg penc bi ci digg burdu fi ñuy waxtaane guddi gi nga xamante moom la sidagement teg pour ñu tàmbale waxu yonent bi nga indi fa waxu Cheikh Omar Diagne te am na tijaan yoo xam dañuy commencé di ci kii naan eh murid yéen dugg cest à xam ne ñu ngi dem ñu leen yóbbu ci manipulation boo xamante ne baaxul manipulation bu parce que yow tey boo bëggee la la naqari en tant que nit ci page Cheikh nga déful fa wax ko loo ko neex mais kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy nank diine ji ñoom ñoo war a moytu utiliser cérémonie diine yi pour di ko di ko di waa politique yi ndax tey tey loolu ñu def noonu ci buddu bi APR yëpp koy jël di ko partagé. Mhm. mais boobaa ñu ngi ja ñu ngi jafe-jafe ci diggante xalifa tijaan bi ak porte parole tijaan bi di ko indi jafe-jafe moom président yooyu dañ ko war a moytu quoi. surtout ment ñi ne ci kër bu ñu amee ay mbir ñu koy réglé nañ ko dem réglé feneen ñu bañ a jël ëttu diine ñu koy réglé politique te loolu Sénégal fii ak demuñu ba loolu ñu dindi ko dinañ sonn ndax tey système bi ñoon xeexal tey système boobu moo wërbatiku di jéem a buruxlu dugg ci kër diine yi fexe nu mu jëlee kër diine yi te pas-pas dafa fort man ngi koy wax euh, euh, euh, beneen yoon pas-pas dafa fort mhm. pas-pas boobu nag gars yi ñu ci jaaree dinañ atteindre ñu bari donc peut une fois dama leen di ñaan nañu moytu ñuy utiliser Seydi Hadji Malick Sy wala Seexul Xadim pour jaat leen ci projet bi parce que ñoom jaar nañ fépp ci sàcc ci xaalis ci tappale ci wax bu ñaaw mais mënuñoo fexe ba Sonko Diomaye am atteindre niveau Sonko Diomaye Sonko Diomaye raw na leen démb tey soo ko ñëw jaar nañ ci lu nekk mënuñu am faay ñu léegi dañu dem jéem jaar ci diine buñ jaaree ci diine amaana ñu am leen léeg yaa ngi gis patriote kenn ku nekk yaa ngi commencé di ci dugal sa kàddu di wax di yàq Cheikh Omar Diagne nangam sangam di wax ni bërki démb gis nga kii euh, génn ci Jim Ndiaye ni Cheikh Omar Diagne safar gii génn nii ñu ci biir màggal gi Cheikh Omar Diagne moo peñ moo moo financé pale lii nit ñi safaree xam nga maanaam kon te boo waxee bu fekkee nekk nga koo xamante ni da nga rafet njort man noonu laay dundee ndax tey Ousmane Sonko li ma téyee tey biñ ko jiñee ni ko moo def Adji Sarr damaa def li saxaabay defoon hmm. ni góob ma ko am naa droit ni góob ko am naa hmm. droit ni def ko ba keroog ma koy gis tey Cheikh a Diagne tamit damay jàpp ni maanaam lu mu wax mën naa juum maanaam mais tey bu fekkee ne bañ Sëñ Tuubaa gi koy waxal man gëm naa ne bañu Sëñ Tuubaa gëm naa ne bañu Seydi Hadji Malick mënu bañ ndax foofu maanaam pour nga nekk julit mënoo bañ Serigne Touba mënoo bañ Seydi Hadji Malick bañ Serigne Touba mënoo bañ Seydi Hadji Malick kon donc ay nit bu ñuy créer genre débat yooyu di propulser pour mu gën a dem ci ci yi ñun tamit war nañu am fulla taxaw contrer ko parce que débat bu sensible waaye nañu am fulla ñu contrer ko parce que bu ko def buñ ko defule dañ leen féewale ndax su tax ma si cité Moussa Kallamu sama waay la te gis naa ko muy dem ci yoon boobu te yoon boobu nekkul yoon bi ma gënal man damaa bëgg ñun patriote ñu def comme ni ñu defoon waxtaan sa waxtaan sa moom bi bi xablillahi jamian nekk ci benn dànk boo xam kenn duñu mën tax wala te farroxu buñ tasaaroo mais bu ñu demaatee commencé éparpillé ñoom dañuy mën a jaaree ci buntu bu ne pour yàqu ñu mais bu ñu defee nii rek dànk bi ñu defoon bouclé ku laal patriote laaluñu ku ñu songu ñoo lay songandoo ñoo lay dóorandoo nga tëggandoo kenn duñu ñeme mais buñ commencé duñu def nii ñu tasaaroo rek comme ni ñëpp la ñuy mën a yàq carrément te boobaa projet xam nga da ngaa wax lu am solo parce que comme naan man bugguma ci woon mës a bëgg a wax sax mais ça fait l'occasion quoi parce que problème bi bi mu amee eh, yaakaar naa ni depuis màggal ga ba léegi maanaam ni ngi dund ay manipulation yoo xamante ne eh, ci këru diine yi lañ koy bëgg a jaarale xam nga musuma ci bëgg a wax nag quoi. mais mais xam nga xam nga waaw moom laa lay expliqué nii xam nga. Eh, débat ngëm-ngëm dafa nekk débat bu sensible parce que comme naan rawatina Sénégal ni ñuy dundee affaire u ngëm-ngëm maanaam nit ñi li ñu war a comprendre balaa dara xew mooy euh, Sénégal état moo nekk ci kaw lépp état moo nekk ci kaw tarixa nekk ci kaw diine nekk ci kaw lépp état moo nekk ci kaw lépp est-ce que comprendre parce que nit ki pour nga mën a tarix pour nga mën a pratiquer sa tarixa di nga ko bëgg a pratiquer ak sa diine il faut que état teg la ci condition yoo xamante ni yow di nga mën a pratiquer li nga gëm muy benn beneen bi mooy eh, réew yi développé yëpp xam nga lan lañ développé seen mooy ku ci nekk la nga gëm la nga bëgg mu nekk ci sa xol maanaam yow dañ lay bàyyi nga dund ko ñu tegal la condition yi nga xamante ni moom nga ko war a dundee mais Sénégal dafa am benn problème bu fa am Sénégal maanaam dañu mën a dugg ci vie privée jàmbur ak ci ngëmu jàmbur est-ce que cadre li nga xamante ni moo njëkk a suscité coow li muy affaire lettre bi man Mouride laa je suis bien placé pour ma wax parce que Mouride laa parce que comme naan juddoo ci samay maam topp Serigne Touba ba léegi Cheikh Oumar Diagne li mu defoon ci affaire lettre bi maanaam loolu la waroon def mënu woon def leneen lu dul loolu hmm. est comme naan nga teg ci sëñ Bass Abdou Khadre sëñ Bass Abdou Khadre hmm. génn yor kàddu xalif bi daal na ñun laaju ñu dara est-ce que comprendre nga maanaam benn lettre boobu murid yi xam nga lañ war a def murid yu dëggu yu nag laa wax maanaam wëlbatiku dal ci sëriñ boobu nag ñu indi leen ay leeral lu tax mu bind lettre boobu ak lan la bindoon ci lettre am boobu maanaam loolu loolu murid yu dëggu yi loolu la ñu waroon def est-ce que comprendre nga hmm. parce que il faut que il faut que ñuy waxante dëgg bu dëgg bu dëgg jotee est-ce que hmm. comprendre Sénégal il faut ñu bàyyi affaire par parloo parce que nit di nga bokk ci diine juum bi nga bokk ci tarixa juum nit nit la quoi yàlla suñu borom rek moo dul juum oh, euh. yàlla suñu borom rek moo dul juum moo tax bu fekkente ni dafa am coow bu am yow bu fekkente ni yow da nga bëgg defar mbir mi maanaam yow doo indi par parloo parce que problème mu lettre boobu keroog li indi problème bi mooy waa sëriñ bi bind lettre bi dafa den bind lettre te te amu ci conscience yu sëriñ bi ak conscience sëñ sëriñ a Abdou Khadre hmm. mais loolu mooy indi problème bi parce que ñoom bu ñu xamoon existence lettre boobu sëñ bas sëñ bas du taxaw ne sëñ bas du taxaw ne ñun sàkkuwuñ dara kon murid yi nga xamante ni ñoom foofu ñoo wëlbatiku dal ci kaw Omar jaaj ñoom ñoo tooñ foofu Omar Diagne loolu mooy dëgg parce que ñoom ki ñu waroon dal mooy sëriñ bi nga xamante ni moo dem bind lettre léegi nag deuxième débat bi am maanaam ba indiwaat ba indiwaat coow Cheikh Omar Diagne dafa génn def conférence de presse da def kii def conférence Cheikh Omar moo génn def conférence bi mu defee conférence moom ni niveau bi mu waxee est-ce que comprendre nga niveau bu mu waxee mooy euh, dafa jëli référence yonent bi parce que yonent bi danaan indi wax ñu ne ko yaa ko wax wala yàlla moo ko wax. Mm-hmm. est-ce que comprendre nga maanaam mu sukkandiku foofu gis ni kat peut-être yonent bi moom bu mu musaan indi ay waxu boppam wala mu bind ay bind boppam gars yi dañuy taxaw kat xool ndaxam li mu bind c'est parfait wala li mu wax waxu yàlla la. est-ce que comprendre loolu nit nit nit mën na ko nit nit mën na ko comprendre est-ce que comprendre léegi mu indi peut-être ay yeneen nitu mu jàpp yeneen mu gis yeneen nitu diine yoo xamante ni peut ñoom seen ay bind après amoon na lu imparfait peut-être ñu ñëwaat xool ko gars yi bindaat affaire yi ba mu parfait léegi nag bu fekkente ni dafa ñëw ci ci ci ci xali ci ci sunu sëriñ ci mu daal di ne mu daal di ne sunu sëriñ ci euh, ñoom ay intellectuel lañ ay nit yu baax lañ def nañ fi lu nekk ci diine waaye jàpp naa ni kat jamono toll na foo xamante ni seen ay mbind sax mën nañ ko mën nañ ko dem saytuwaat mën nañ ko xoolaat mën nañ ci joxe suñu xalaat est ce comme naan mais léegi foofu problème bi mooy man mi nga xamante man muri laa wala man mi tiijaan wala man mi laayeen wala man mi ñaseen man day suma ma gëmee sama sëriñ ci kaw ay bindam parce que ñu bari tey liñ toppee suñu mag ñi mooy seen ay mbind ak seen ay jëf est ce comme naan ma gis ni kat peut être seeni mbind seeni mbind yi doy ma ba man ma dem jébbalu ci ñom nit wëlbatiku ne kat ah ñom seen mind kat peut-être mën na am lu ci imparfait ndax war nañ ci mëna kat xolaat joxe suñu xalaat hmm. fofu nak da ngay gis ni yow mi gëm da nga naan ki daf ma laal daf ma tooñ hmm. est-ce que comme nga fi ma lay waxe waaw da nga naan kat yow man ki kat li mu wax ni daf ma laal daf ma tooñ parce que sama pas-pas parce que sama ngëm-ngëm lay laal te or que nit bu fekkente ni yow donc man boo demee sama page man def naa fa texte man mani man bu doon maay Omar ak ak ak bii nii ñu toll mënoon naa bañ a dugg ci ay ay ay euh, euh, ay ay débat yii parce que day susciter polémique parce que xamoon da mm-hmm. xam nga Cheikh Cheikh Omar Diagne euh, moom moom dafa moom dèjà maanaam bët bi ko nit ñi di xoolee la mooy dafa bañ tarixa parce que comme naan moom bët boobu la ko nit ñi di xoolee te man gëwuma lool man gëw ma bañu tarixa parce que moom ah, moom laa la jugee waaw waaw moom man gëw ma lool lu bari lu muy wax ci peut-être ñoo xamante ni ñu ngi koy def tuwaam mafia religieuse boobu mais dafa am loolu ku ko wax ak ku ko amul ku ko ku ko wax ak ku ko waxul. loolu moo nekk dëgg loolu moo am loolu mooy dëgg. mafia religieuse boobu xam nga da xaaral même foofu danga ngaa benn wax ba mu sol da nga ni. Hmm. daf ko wër woon suscité waat. maanaam foofu maanaam dafa war woon yëkkatiwaat débat parce que tamit dangaa nekk koo xamante nii dangaa nekk ci biir pale jege buur bi lool nga buur bi lool donc yow lépp loo wax dañu jàpp ni ci ndigalu buur bi nga ko waxee te buur bi mu ngi lay gis ci wetam ngay wax yoo xamante donc am na loo xamante bu la amul njëriñ ci nga wax ko nga maandu ci maanaam tey yow même boo bëggee def ndax boo gisee Seex Asta Mbàkke génn na wax ko ni Sëriñ Tuubaa bañul ko saytuwaat ay mbindam mais xam nga problème mooy mën nga koo saytuwaat waaye est-ce que di nga indi lu gën a wóor li bind. waaw très bien moom laa moom waaw moom maanaam moom dèjà moom mi nga xam sët la ci fay ba mën naa tontu tontu boobu. Hmm. si Omar Diagne su bindee loo xamante ni moom mën naa bind ba pare wala mun day seetu mu seetu benn taaliba bu gën a bu gën a ci kër ga ñëw dajji lam bind yëpp tegaat fële mu xam ne kon am na ñu ko ëpp xam-xam ñu ne ci biir kër ga mais man. li nga wax foofu loolu laa d'accord maanaam mënoon naa bañ a indi débat bu parce moo tax fi nekkee moo tax parce que nit ki des fois da ngay suuraale sa kilifa sa kilifa da nga koy suuraale parce que tey euh, nii débat bi amee nii maanaam tey mën naa bañ a confortable ci wax ji euh, président Sonko mën na cee bañ a confortable ci xamaa ne sax président Ousmane moom daanaka moom mën na boo confortable ci vent bu ne ndax yàlla ni ko bindee mais jomaay du genre nit boobu jomaay du nit ku bëri polémique jomaay du nit ku ñeme coow jomaay dafa nekk ni ko nit ku dal ku nekk ne yàlla bind sa biddéew donc tey buñ ko jëlee jomaay war a dem Tiwaawan président Ousmane Sonko war a dem Tiwaawan waa Tiwaawan daal di koy ba day commencé diisaat moo tax maanaam li nga wax dafa doy waar moo tax daal man sorte yu bëri suñ ko mënee moytu te ñu nekk ci wàllu liggéey li ñu leen war a def ñu liggéey ko ñu moytu sorte yu bëri ku génn nag def sa ay ay ay ay ay ay sos comme ni ñu ko defee woon sëriñ boobu ak ba jaxate nit ku pelante la yóbbu la ci yoon wax ji nekk benn ak loo mën ne parce que boo génnee nekk ci ay sos ak ay ay ay wax yoo xam du dëgg maanaam nit ki jëlee moom li mu mën a def mooy humble ak modestie bu ko may mu pare ci wax ji. nekk ci tournée passe bi nekk ci leneen ñi ci bëgg a débat ñi ci bëgg a continuer di wax ñu bale ñu continuer di ci wax ñoom ñu continuer di liggéey mais buñ ci bëggee tontu indi ay leeral débat bi day continuer di wax su ko defee euh, euh, euh, télé bugaan bi continuer di ci nekk di ci di ci di ci acharné wu ci di ci def ay plateau parce que ñoom amatuñ lu ñu wax amatuñ ñuy sàcc xaalis di leen jox maanaam réew mi dafa toll foo xamante ni nii ñun patriote dañoo war di bëgg ñun mbégtam safar googu ñuy wax dañ ko war di dund ñun fii ba deux mille 29 dañoo wut dina métti moom parce que ñi fi nekk dañu fay nekk ngir ñun ngir sénégalais ngir askan wi nekk ñu fi ngir ay bourgeois di daal do ñu doon sàcc xaalis ñëpp lañ téye seen loxo moo tax coow li bëri biri bi bëri ku nekk daal léegi la ñuy créé bu Cheikh Omar Diagne mayee benn flan dañ fay jaar flan boobu leen kenn warta teg dossier rapport yi mu génn ñun war a jàpp ñu jàpp ñun war a tëj ñu tëj ñun war a àtte bàyyi ñun war a def contrôle judiciaire ñu def lii mooy li nga xamante mooy liy dëgg mais dugg ci ay débat pas-pas ngëm-ngëm loolu daal dañ ko war a moytu quoi man moom wax dëgg yàlla pale nekk fa pour lijjanti ay kenn pale dëkku lay la moom na nekk zéro lu ko jox ci wàll kii religion ni ko lu mu ci mën ci lu baax mu def mais bu mu jéem a dem di lijjanti ku nekk ak kii parce que réew moo nekk réew moo xamante ni dafa naqaree waxee comme yaa ko wax réew mi dafa naqaree waxee donc nag li nga xam moom la jëriñ jëriñ dooguma la moom côté bi mu féete mooy côté bi nga xam ne ñoo yor affaire culte affaire religion religion mais pourtant màggal màggal gi huit deux cent maanaam budget deux cent mille deux cent mille santé bi ñu jëlee màgg bi ñu jëlee bi budget deux cent millions bi ñu jëlee budget deux cent millions santé bi ñu jëlee ci màggal yóbbu ko huit cent millions mais pourtant Omar Diagne moo ci liggéey mais nit ñi duñu gis non ba xam yow yow li nga dama xam Cheikh bi man damaa xam ne Cheikh Omar Diagne damaa xam ne Cheikh Omar Diagne ku wekk Serigne Touba la ku wekk ku wekk Serigne Touba la ku wekk Serigne Asbaay la mais polémique bi ko nit ñi bëgg moom moo nekk moom moo nekk waaw moom laa lay expliquer moom moo nekk dama wax Cheikh Omar Diagne dafa bëgg Serigne Touba dafa bëgg Xaadim Rasul moom moo nekk moom moo nekk moom moo nekk parce que moom moo nekk cible damay laaj moom moo nekk dama nekk ci moom moo nekk cible de polémique est-ce que comprendre parce que xam nga lu tax moom moo nekk cible de polémique parce que xam nga lu tax maanaam antécédent ay ay am wax na loo xamante ni peut-être gis na benn murit bu ko def wala groupe de murit bu ko def parce que yooyu am na léegi bu ko def mu dénoncé ko nit ñi ne kat Omar Diagne murit yi lay xeex parce que tey tey mais am na murit yoo xamante ni tey dañuy profité ci màggal gi di ci di seen affaire. Mhm. mais loolu loolu am na est-ce que comme naan mais loolu xam nga Omar loolu Omar Diagne bu ko waxee mais mais mais am na am na am na fii laa xam ne dañuy dañuy jege sëriñ si di teg ay dil ci màggal gi ah, loolu dafa am. non li nga wax ne li nga wax ne dafa am. am na ñu ko wax mooy mais ñii ñii dañoo bëgg ba wallaahi bokk na ci président Ousmane Sonko challenge yi gën a rëy yi mu gën a fonk yi mu gën a wekk mooy Touba si ak ñaari at Touba soppeeku ba at mus waa waa Touba xam ni Touba melu woon nii bi ñu koy jël maanaam ma loolu daf maa leer ci Ousmane Sonko nekkul lu may làmba ma koo daj maanaam li mu def Touba ndax askan waa Touba c'est-à-dire kooku boo koy nan dafa dañuy xeex waa dëkk boobu moo tax des fois dafa am yoo xamante ni daal man daal waa Touba ak waa Tiwaan. kër gi wala kaw la ñoom ñoom non non ah, ñoom seen ah, ah, xaaral foofu gis nga ñuy wax ñëpp ñoom ñoom amuñu problème ak Jomaay amuñu problème ak Sonko Cheikh Omar Diagne lañu amal problème est-ce que comprendre non non non non non non non non non kon kon dese nga ko Sonko ak Jomaay lañ amal problème. non non non bëgg fa jaarale Cheikh Omar pour teg ko taaba ndax tey. non non non non murid yi ciy wax laa non non murid muridu patriote yi ciy wax laa wax muridu patriote yi ciy wax loolu beneen cas la xam nga dafa am muridu patriote yi ciy wax am ñi nga xamante ne ñooy manipulateur yi ciy wax waa benn bokk yaakaar ak ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy les nekk mm. ñaari cas la dafa am ñoo xamante ne ay patriote lañu nekk ay murid gëm projet bi mm. est-ce que comprendre nga mais ñooñu Omar Diagne lañ amal problème parce que jàpp nañ ñoom li ñu wax dañu Omar Diagne dafa laal seen pas-pas est-ce que comprendre nga loolu mën nañ ko régler suñu biir la est-ce que comprendre mais li gën a graaw mooy net bi religieux yi nga xamante ni dañ koy jël bëgg ko bëgg ci buruxlu bëgg ko bëgg ko bëgg ko jël ah, yóbbu ko foo xamante ni xaar xaar ñoo te yóbbu ko foo xamante ni dañuy bëgg a Jomaay pour mu dàq Omar pour ñoom ñu mën a neex la ci palais bi taxawaayu Omar Diagne ci biir palais bi dafa am lu bari loo xamante ni tey li ciy dimbali Jomaay parce que gis nga jóoriñ nguur yi fi daan nekk dafa daan am ay groupe groupe de maara yu leen daan tenir en otage di dem pale di fa lekk ay mbaxal ak ay pepesu di ñibbi ñu leen di jox di ñibbi ñu leen di jox ay valise ay un milliard ay cinq cent millions est ce que loolu dafa am léegi loolu dafa jeex ci palais bi moo tax tey am na yenn xeetu sëriñ yoo xamante ni ñoom Omar Diagne toogaayam foofu du leen neex moo tax ñu naan na dàq Omar Diagne est-ce mm. moo tax moo tax na dàq Omar Diagne léegi nag euh, patriote yi nga xamante ni tey euh, ñoom affaire bi naqari na leen man je peux je les comprends mën naa leen comprendre parce que tamit ñoom lu ñu mënti wax it bu ñu xëyee après dañuy juboo waat mais man daal bu ma sañoon mooy euh, li ma li ma waxoon léegi loolu laay waxaat est-ce que comme naan nga bàyyi Omar Diagne nako ko da dàq ndax benn Jomaay du pression nit moy tax mu dàq nit. te Omar Diagne defu vie wala waxu vie lo xamanteni warna tax ñu dàq ko wala bëgg-bëgg benn groupe de nit wala benn tariqa du tax kat ñu len du tax du tax mën naa dàq Omar Diagne il faut qu'on dise la vérité parce que dafa gu fi loo xamante ni war nañ tëb ñu dàq. il faut parce que ñu bàyyi loolu loolu il faut ñu bàyyi léegi léegi beneen bi moy beneen bi moy il faut que ñu comprendre que ñun dañu dañu nekk. dañu nekk ci dëkk boo xamante ni eh, buñ dañoo gëm yàlla gëm yonent bi gëm diine gëm tarixa est-ce que comprendre léegi nag pour ñu dund en ku nekk dund ci sa jàmm est-ce que comprendre mooy ku nekk na nga gëm ibaadu bi na mu gëmee ni moom yàlla rek la te loolu mooy dëgg yàlla rek la yàlla kenn la Sëriñ Tuubaa loolu la wax yàlla amul dendandoo yàlla amul waaw léegi ñoom nañu gëmee loolu nañ ko gëm dund si tijaan yi nga xam ne ñoom dañoo gëm ni gëm yàlla am na yonent bi am na gëm seen sëriñ maam alaaji Malick ñu bàyyi la ñu dund ko tranquillement murid yi la même chose murid yi nga xamante ni gëm nañ yàlla gëm yonent gëm sëriñ Touba ñu bàyyi la dund bu fekk ku ci fanatique mais majeur ku nit bu majeure ba vacciné bu fekkan sax ab bant mu ne bant bi mooy sama sëriñ wala bant bi mooy sama yàlla wala mooy sama yonent dañ ko war a tegal cadre boo xamante ni dina mën a jaamu bantam tranquillement pour ñu avancer quoi parce que dañoo nekk ci monde boo xamante ni dafa comprendre tardé weesul ay nit di xuloo ci affaire diine ak ay affaire tarixa man loolu laa gëm man am na loo xamante ni jëwriñ man du ma ci tardé est-ce que comprendre nga du ma ci tardé du ma ci du ma du du ma ci du ma duma ma du ma du ma ci sonal sama bopp est-ce que Serigne Touba laa gëm ginnaaw yàlla ak yonent bi Serigne Touba laa gëm te kenn du ma ci jëlee. waaye nag doomu du ma nekk mukk koo xamante ni dan lay manipuler wala dan lay yóbbaale est-ce que comme naan li ma lay li ma lay expliqué bu baax ah. waaw lépp dama koy teg ci dëgg teg ko ci yoon teg ko ci fulla teg ko ci fayda est-ce que comme naan Serigne Touba bi mu fi nekkee dane gëm leen yàlla ak yonenteem est-ce que comme naan nga jàngal nit ñi nan la ñuy gëmee yàlla ak yonente jàngal nit ñi nan la ñuy liggéeyee ak nan la ñuy jaamoo yàlla loolu c'est léegi nag co dafa am coow yoo xamante ne maanaam ñi jiitu ñoo ko war a njëkk a éviter dañu war a xam ni Sénégal maanaam ñëpp fi ne ñi gëm ak ñi gëmut ak comme naan nga ñi ñi saay saay ñi kàccoo rek maanaam ñëpp a léegi pour débat yi pour pour pour débat yooyu yëpp clos maanaam ku nekk na yam ci li mu yam pare si quoi est-ce que comme nga bu ñu taxawee bu ñu taxawee ne ne ne bu ñu taxawee ne Serigne Diouf mooy yàlla comme loolu ka ko wax digganteem ak yàlla la est que comme ko ko wax diggante mag yàlla la maanaam. daa taxul sëriñ diw nekk yàlla sax. daa taxul taxul sëriñ diw sëriñ diw sëriñ nekk yàlla. il faut que ñoom yenn mentalité yi yow jëriñ yow gis ne États-Unis États-Unis ku nekk ak nga gëm te ku nekk dan la teg ci situation boo xamante ne yow la nga gëm dan la bàyyi nga dund ko. ñun lan moo tax fii ma lan moo tax fii màggal bu jotee ñu ñuy jox ay salle di ñu jox ay policiers yëpp ñu ñuy garder parce que li dañ ñu ñii lii waa nan ah leen mel ci cadre nan leen teg ci ah, cadre boo xamante ni Sénégal rek moo am boo waxee la ñu gëm dañ koy bedd nangam am mais mais mais mais mais am na beneen affaire boo xamante ni loolu état bi laa état bi laa ci interpellé état bi moo war a teg xoolal état bi état bi moo war a teg ay loi yoo xamante ni képp ku waxati yàlla loo xamante ni war a ko yàlla justice dal ci sa kaw balaa dara xew parce que tamit dañ nekk ay ay loolu boo demee boo demee tey ci dëkku naar yi mhm. boo demee tey ci dëkku naar mais dafa am ay loi yoo xamante ni tey boo waxee suñu borom loo xam ne waroo ko wax mais loi yooyu ñooy njëkk dal ci sa kaw mhm. est-ce que parce que ay ay ay ay ay ay kii lañ ay ay julli lañ ak ñoom ñoo ñoo ëpp Sénégal te ay waay gëm mais yàlla da nga ko war a protéger ci sa dëkk ba kenn du ñeme jug di waxal yàlla loo xamante ni wala yonent bi loo xamante ni du dëgg du du du képp ku nekk Sénégal wax wax wax wax wax wax Seydina Muhammad wax yàlla loo ko war a wax wala wax xam Muhammad loo ko loo ko war a wax wala wax ki nga xamante ni mooy eh, maam kii Jésus loo ko war a wax mais yoon dal ci sa kaw ba pare lu ay yooyu dafa war am ci dëkk bu ñu régler dëkk bi maanaam même nit bu jógee attaqué ngëmu jàmbur maanaam ñu jàpp la teg la ci yoon man bu ma ñëwee. teg seen xam xam maanaam. tey boo xoolee Sénégal foofu mooy problème bi tey boo jugee wax ci yéen Serigne Serigne Serigne Sidi Hadj Malick dara wala wax Serigne Touba dara gars yi dinañ mën a autosaisir mais boo waxee ci yàlla dara wax wala wax ci dara dañuy toog mooy maanaam loi boobu nga xam dafa war a protéger Serigne si protéger diine ku nekk maanaam mu protéger pas-pas doomu aadama bu ñu ko defee rek ñëpp na noppalu maanaam mu protéger diine mais loi bu protéger am fa moom maanaam ku nekk rek yaa am sa gëm-gëm li nga bëgg a wax ngay wax li nga bëgg a gëm ngay gëm donc mais maanaam protection bu ci amoon rek ku nekk dina moytu dina respecté maanaam si yow di nga respecté seen ñu diwli ndax boo gisee des fois ñu convoqué Omar Sall wala ñu convoqué benn Ibadou Galadio Kafi wala ñu convoqué parce que dafa tudd te waxee nekk sama sëriñ nga waxal ñi ne mais bu ñu defoon loi boo xam bokk yàllaa ak yorente pas-pas la wax ci wàllu pas-pas ku nekk na respecté nit pas-pasam rek wax ji jeex. moom rek wax ji jeex xam nga xam nga tey moom laa la expliqué nii xam nga loi bu amee dina permettre ku nekk am fu muy yem. xam nga tey eh, moom laa doon expliqué tànk xam nga man mi nga xam ne man murid laa est-ce que comprendre nga jàng jàng jës bu jàng jawartu est-ce que comprendre kii nee na ko eh, ñun eh, murid dara Serigne Touba kese kii nee na ko yow noir xaw ma ne ko est-ce dafa déglu xam naa loolu mooy problème moom laa moom laa moom laa leen expliqué waa kay léegi nag gis nga genre yi genre yi maanaam tey da da xam ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom seen comportement lan moo ko waral xam nga lan moo ko waral mooy man Babacar Sadikh Diop murit laa judd ci murit gi samay maam judd ci ma màgg ci jàng jawartu jàng jësbu jàng jàng jàng muhaddimat jàng jàng mahaybu mawaahibu comme naan nga jàng jàng xasaayat Serigne Touba xam li ci Serigne Touba nga wal ba dugg ñëw taxaw ne ma mbindum mag ñi am na lu c'est pas parfait parce que am na luñ ci mën a mun am na lu war na am luñ ci mën a corriger war naa mën a joxe sama xalaat mais attention bu may réagir man damay réagir en tant que ku gëm est-ce que comme naa ngi ñu expliqué maanaam il faut ñu jéem a il faut ñu jéem a ni nit ñi dimension boobu ñuy waxe parce que man dama gëm Serigne a par ses écrits. boo ah, demee euh, euh, waaw boo demee boo boo demee écrits yi boo demee écrits yi kat nii nii am na lu ci am papa wala dara automatiquement kooku murit murit bi mooy mooy mooy mooy réagir est-ce que comprendre bi murit bi mooy murit bi mooy wax te loolu dafa am solo. moo moo tax wax wax bala nga koy wax. waaw na parce que noir nen la yaa ngi leeral sànq ba tey jarul jarul borom moom laa expliqué. xam nga tey bari bu ñu ma déggee bu ñu may dégg ma mun nañu yaakaar ne man du ma murid cee bokk sax ci sàpp mais nag dafa am noo xam ne du ma doxee noonu jëwriñ est-ce que comme naa la ah nit kay nit kay nit kay nit kay nit kay yàlla yaa ulil albaab yéen borom xel nit boo bëgg sa nga bëgg nekk bàyyi la nit mën a kenn mënu ko très bien léegi léegi nag bu ñu bëggee régler bu ñu bëggee régler problème yooyu noonu yëpp nag il faut moom loi boo xamante ne mooy protéger murit bi ibaadu bi chrétien bi ñëpp ba nga xamante ni ku laal sa morom ci li nga xamante ni mooy pas-pasam yoon dafay dal ci sa kaw te tamit ku nekk nangul ci sa nangul sa ku nekk nangul sa morom ni li mu gëm wala li mu jàpp loolu mooy lu baax loolu buñ ko defee rek buñ ko defee rek noppal ku nekk yam fi nga xamante ne en tout tout cas alaaji alaaji li nga wax yëpp dëgg la waaye l'essentiel daal mooy nañu fexe patriote ñu bañ a tasaaroo man sama sama projet lépp man projet bi ci projet bi laa nekk yor sama projet ci biir projet bi sama projet ci biir projet bi mooy patriote yi bu ñu tasaaroo di xuloo seen biir mhm. buruxlu yi nag di dugg di ñëw di buruxlu nan lañ leen xàmmee bu bépp man gis nga euh, euh, ku ñëw naan ma waaw li ma la moo ma ma mu gàttal maanaam burux laa lu may kenn sama digganteeg patriote wala sama digganteeg maanaam burux laa bëggul nan ñu bàyyi ñu dund yaa ngi ni murit say deex nga ba ma xam ko Idi Jonaar a ngi ne kenn xamul lu mu doon euh, kii wa ngi ni tijaan la bu ñëpp xam man maa ngi nii salafis laa boo xamante ni salafis yi defaa lañ may dàq seen biir te nee ma salafis boo xamante ni ko saf lay def kenn mënul la dara salafis boo xamante ni yow say bagage bopp nga yor hmm. kon maanaam nga xam ni affaire bi méttiwul diine méttiwul xam nga maanaam am na ay yoo xamante ne sax boo koy boo koy déglu di nga xam ne diine méttiwul li am solo mooy ku nekk na respectel moromam ci li doon mu nangul ko eh, ci bit muy alaaji di wëgër wëgër noonu euh, euh, ñu mu nangul ko te mu am compréhension am mën mën a muñ a diine laayante biir diine nasiha laayante biir la rek mais maanaam bëgg fi nekk di ñod di maa gën a bëgg sëñ Tuuba maa gën a bëgg alaaji Malik ki na la maa la gën a bëgg yonent bi di xatar ay di tëbaka dal génn bëgg gi nekkul foofu bëgg gi xoolal mën daa toog sa ruxu conseil xasida jooy ba xol sa xol sedd nga jug dem daag kenn gën laa bëgg sëñ Tuubaa te kenn xamul kur yow ak sëñ bi yow yàllaa ko xam mais non non foo ma jéem na ci mbooloo mi di wane ni maa dàq xatraay ma gën a mën a wax ju ñaaw waaye fii sëñ Tuubaa na yee sa il faut ngeen dal rek boo leen dayeeg ñu wax ak yéen ak tax man salafi dégg naa ko parce que man man maa am jarbaat boo xam respecté wu ma jël ma baaw ko doo utal ko jëkkër fii respecté wu ma tegu ma fenn non jox ko jox ko Idi. doo ko jox Idi waaw. nga dëgg Idi de war naa ko mën a may mu am ñaareel. léegi léegi daal jëwriñ bu tënk mooy mooy autorité yi maanaam ñoo war a bàyyi di waxu religion parce que ñëpp lañ jiite est-ce que comprendre nga maanaam réew lañ bokk nag. est-ce que comprendre nga ma maanaam ku nekk ku nekk maanaam euh, na nañu nangu euh, li li nga gëm ak li sa sëriñ liggéey. ak lii ak ak ak ak ak bi nga gëm est-ce que comprendre nga bu ko defee ñu mën a avancer ci li ci liy defar réew parce que parce que patriote yi moom na t'en fais pas patriote yi patriote yi patriote yi lu ñu ñàkk déggoo déggoo déggoo déggoo maanaam xeexal réew mi bu taxawee maanaam ah, ah, ñoom ñëpp dañuy ñoom ñëpp dañuy retrouvé parce que li nga wax ni yëpp dëgg la quoi mais yow eh, dañu war dem serage de ñu jox dara ba yóbbaale jëm ci war yëpp booy ñu papi bi ñoom mooy boo leen dem seeraas wax leen ma rek ma yabal leen boo xam boo leen demee da ngeen loolu lañ doon jël après ma woona ku ne di ma kar ma bindu ma ci liste bi ah, mun noo leen a bu ndaw bëgg a dem këlëb foofu rek ah, da ci daal boo leen demee waaw ah, yéen naa yabal boo xam maa ngi xalaat samedi nag maa ngi xalaat ñu kii man la Bakar fan la ñu war a kii. ah, ah ngeen dem fan ngeen war a dem moo leen ngeen dem boo demee rek. Ah, ñu lakk mbote ñu bëgg añoo. ñu lakk mbote rek jox leen añoo lañ bëgg añoo lañ bëgg. <laughs> waaw loolu du dara añoo ngeen ne ñu leen ko rek jox toog noonu rek waxtaanee ko duñ koy teg rek pour waxtaanee ko ci table ah. xam nga buñu toogee noonu tiim ko di waxtaanee projet bi tiim añoo bi rek loolu laa bëgg man da parce dama bëgg dama bëgg propagande xam nga parce que patriote xam naa dafa ci bëri ñoo xam ne noonu na yàpp xam nga jënd yàpp moom dañ lay fréquenté non attention gars ci màggal lañ jógee de gars yi ñii de màggal ak mooy dinañ lii ñu jàpp lay dundee parce que dinañ moom di nga gis sax ñu la ci commencé mere nan si waaw da ngay am sa groupe bopp te am ñooy woo ñoo dul woo non donc wax nga dëgg de parce que di màggal lañ jëm te ñu ngi dem te ñu ngi te ñu ngi dem ci namuñ ni seen def ko dimanche waaye jàpp papa di ñoo xam programme samedi programme samedi gi waa dimanche moo gën nga xam ne di nga mën a bari ay candidat candidat nga xam ne di nga gën a mën a bari ay candidat samedi wala dimanche dimanche non dimanche boo ko defee day fees doo attan doo di nit ñi dañuy bëri nit ñi dañuy bëri non waa du lool non terrasse moom boo fa duggee moom loo loo yor lekk yaa sam da ngay waxtaane ah boy kon da ngay dem waxtaan da nga xam yalla tuddu ko bi pass ya ngone keur ga lek nga ci ki ci ginaar rek kii xaw ci o ki bi euh pela graw nga ki nga mën nga mën nga bay ba benen ci nag dañ ko mako ko dama damay duggal kenn ba mu dugal keneen. non yëpp de séerase lañ bëgg a dem jënd fa benn xar bu ndaw benn añu teg ko non waxtane ko dal di ci waxtane ci projet bi tiim añu bi di ci waxtane projet bi yor sa paaka di ci di wone lu nga ci laal ci projet bi nan lañ bëgg def dal waaw Babacar moo ñu yabal fenn. jëriñ benn xar est-ce que benn mboto. non da nga xër nag da nga xër nag yow da nga ëppal non am na lu may préparé. loolu ah. leneen la. barki de maa ah. ngi waxtaan Samba si am na leneen lu may préparé loo xam ne fu ma def benn kooku moom minimum minimum faw ma laal cinq xar ndax fa ma ko bëgg yóbbu la. maa préparé lu rëy nag boobu moom damay dagg bee ñëw kon. même bu dee bu deux jug man sama yoon man patriote damaa jug pour ñu bëgg man bëgguma fi ñu nekk histoire du xuloo mënoo bëgg ñuy dund quoi ñuy belli di lekk def comme man ne ci laaj yi sant xam nga di lépp ak xeetu sant. man su ma doon su ma doon bokk tarixa yi laay doon. Cheikh Béthio laa dem ànd man cantaakun laa daal man damay sant rek man yooyu laa bëgg ay laal ay mus bi ay yu sedd yu neex ay yow. voilà ah, kefree bi gi àdduna méttiwul quoi. non loolu mooy àdduna sax jóori àdduna àdduna méttiwul de gaa yi ko rek piscine bi non bu piscine bi am na bu piscine barki yàlla rebel am na bu piscine mais boobu moom privé la moom bu piscine moom privé la boobu maa xam boobu dafa am sama ku ma jox kër gu am piscine ne ma bii moom ah, mais boobu moom damay sélectionné ay non bu cinq dafal ndànk dafal ndànk bu cinq xar bi da ma koy teel a wax weekend ma jël ma ma jënd billet ñëw def VSD ñibbisi vendredi samedi dimanche non doole ah, jësura am ngeen doole ñëw rek pour lekk ci pour nekk ci xar nii rek lekk lekk ci xar ñaar leen da xamal naa la ko

dina ma neex jëriñ boobu moom boo ko teelee jàpp rek tellement wax. non man maa ngi fi instant bi ah, maa ngi fi maa ngi xool laa ndax keroog am na mais bu privé bi lu ma la wax noonu loolu saa caa bu privé moom am ku ni moom dafa am kër goo xam ne ma kër gi boobu barke alxuraan kër gu laa dug moom kër gu rafetoon na mosuma gis Sénégal nekkat benn patriote moom mun moom boo ko soxlaa da ma koy teel a wax rek. déedéet kay deux jours jox la barke alxuraan mais kër gu rafet naa la après naa la woo après après <laughs> bëgg naa ko. la la la dama def yëfu koy dund Euh, bëgg indi benn problème ngay gérer sa problème franchement parler papi du ñëw tey te boobu moom yëfu mag la papi yéen ay xale ngeen boobu pour seen tonton yi boobu foog nga am 40 ans pour <laughs> boobu booy mag la booy papi di ñëw bul dem jugement di yokk at non foofu mun faa ñëw sa farte foofu yëfu mag la foofu <laughs> ah, minimum da la jaral at quoi euh, gars yi jugement wàññi la ñor mais bu la jaral yokk at dégg nga waaw ah, non boobu euh, rebelle Sonko boo laal quarante ans itam mën ngaa toog parce que am na boo xamante ni moom foo nga am quarante ans fu nga mën a ñëw bu fekkee xale jigéen ñi nag bon ñoom amuñu kii quoi amuñu âge xam nga ñun. non non ay non am na am na âge kay am na âge. non a nii ñun paa yi nii paa de paa day bëgg paa day bëgg xale yi tamit nag xale a ah, ah, am na âge am na âge. bu bu li benn problème ku ne yi mën nekkee ci réseaux sociaux yi sama dem na bu yàgg parce que dinaan kii kii kii def kii dafa dof man ñàkk bala ñu ñoom jëwriñ ñoo ñoo ah, ñoo ñoo ñoo ñooy organiser ñu ne ba ka fa def non waa Pastef la ñu wax duñ ne ñoom ba ko du tax nga taamu sama tur du ñoo ñoo organiser sortie ay pay organiser sortie ay pay organiser eh, sortie e xool idi idi mu fi idi bu duggé ci piscine boobaam dama ko yobale moom barké sëñ touba idi day dem moom boobaam idi day dem moom yóbbaale ko rek mu idi ngal idi nga laal sa pyjama de ce deux pièces wara genn rek njàpp yalla bo la sa kirot wara dugg ci piscine bi oh, idi lol na graw déedéet na ba oh, attention ba idi idi idi idi deux pièces idi deux pièces am xalé du ko gis de ngeen Umar Kébé mu ne mën a gis ak yéen nag non bu fekkee amoon na 40 ans 40 ans mooy dem loolu c'est c'est ci piscine nag dégg nga booy xam nga booy ñu ngi commencé tuwaay idi dégg nga kii ba booy ñu ngi commencé tuwaay idi naa idi ci piscine booy ba ñuy duñoo loo bëgg a wax loolu léegi yow ci idi ci piscine booy idi sama ganeen la leen ko bu leen ko kii waay la moo tax waxoo ci piscine ak biiram bu rëy bi la moo tax tuddoo leen ko ngeen tudd idi non man idi la moo tax booy yëpp ko jaaxal na ma quoi benn xale demul benn way l' essentiel l' essentiel est dit mu ngi noonu li mooy projet bi Babacar a gi nii euh, kenn dàq koo def xaalis ci projet bi barki alxuraanul ah, karim alxuraanul karim laa leen waatal du ma ko waatee ca kenn dàq koo barki démb am na kuñ don jox kuñ doon dajaleel xaalis benn waay moom mi moo yene cent euros ni ma dugal ko ci moom mii barki démb ah, li c'est-à-dire koy gars am na ngay daan de barki gars yi dañoo baax de ku nekk sax xaalis yaa ko liggéey ñax ko mu lew la. nga am eh. kon donc boo ko yëgee di ko maye rek yàlla tax ndax projet bi tax ak bëgg eh. Ousmane rek ak bëgg Ousmane du baax moo tax man moo tax ma am complexe ci kanam Ousmane. non xam nga xam nga dafa am loo xamante ni complexe ci kanam parce que projet bi sama xaalis sama alal sama temps sama lépp ci dem mais du question ñoom projet bi lu ma jariñ moo tax ku la ci jaay affaire nga mën a koo naqaru rek doo doo nit man man yéen ñi nekk dama koy wax patriote nit bu leen jaay affaire mu saf leen wallahi doo leen nit parce que li ngeen def ak li ngeen ñàkk ak li ngeen ci sonn yéen ngeen xam ne ngeen am mérite seen bopp yi da ngay xamal sa da nga am mérite ci lii même boo ndax xaaroo ci dara xam nga maanaam ki ciy def da ciy xaar dara mais yow mi nga xam def nga ci te xaaroo ci dara dara dara nit di la jaay affaire mu lay saf non doo nit kon man kenn mënu ma cee jaay lu ma saf. Jori xam nga xam nga nit ñi lan lañ comprendre maanaam sababu projet bi nga sababu projet bi mooy sénégalais bu nekk nekk ci jàmm maanaam au fait. Mhm. li ngay dégg projet bi li muy rëy rëy rëy maanaam li koy sabab maanaam mooy sénégalais bu nekk nekk ci jàmm Ousmane Sonko ci lool la ci lool la ci loolu la ci loolu la inspiré woo daal di ne li ñëpp bokk ñëpp jot ci xam nga li ñëpp mm. bokk bu ñëpp jotee rek sénégalais sénégalais yëpp nañ nekk ci jàmm léegi man li ma gëm mooy li ma gëm mooy dimbalante bi ak social bi Pastef ci def maanaam buñ ko deful mooy ça veut dire li ñuy wax gëmuñu ko parce que bala ñuy fexe sénégalais yëpp di nekk ci jàmm ñun ñiy bokk projet bi sekk projet bi dañu war a fexe ñun suñu biir ñun ñu nekk ci jàmm. Mhm. ñu nekk ci projet bi nekk ci jàmm. comprendre nga mhm. kon man dama gën ni patriote bu amee soxla bu ko tegee ci table bi bu buñ ko mënee faj te yàlla rek tax maanaam dañ ko war a faj te yàlla rek tax parce que dañ ne. dañ ne ñëw damay téen waaw non non non yi mën a faj laa la xam nga kenn mënul faj yëpp moom laa lay xam xam xam xam nga kenn mënul faj yëpp mais mais mais jëwriñ Ousmane Sonko lan moo tax mu xaaj saleeram am dem di ko jox ay ay ay xale yoo xamante ni amuñu ndey amuñu baay mooy pour bëgg xale yooyu nekk ci jàmm kon ñun ci ci loolu lañ inspiré woo ñun tamit gis suñu leader def ko ma ñun tam loolu rek obligation la jëwriñ du loolu loolu bu ñu ko deful mooy gëmuñu projet bi parce que projet bi mooy na sénégalais bu nekk nekk ci jàmm kon bu fekkente ne dañ ne na sénégale bu nekk nekk ci jàmm ñun ñuy doxal projet bi nekk ci discussion pendant des années Nous gis ñu nekk ne di am di am problème mënuñu mënuñu mënuñu leen ko mënuñu problèmes. ñu kon li ñuy wax ko quoi. problèmes. son vidéo mu di ma ma ko directrice RRT xos luñ ko fal sax luñ ko fal vision ma félicité ko mu mu message ante noonu dem mu ñew ci commentaire yi ko yow di dom doom faluñu la nga yaakaar ni dañ la fal directeur da nga yaakaar da ngay naw mu ne ko parce que jiwuñ rek man man di xaj biñ fal directeur ay fakir la won sama kanam man la lay mëna fal ba ba ma sentir que nit ñi am lu ñu leen fal lu ma lu ma parce que damay xam ni da nga oyof rek nga ñëwa TDS nga ñëw fekk ci commentaire patron yi nga fa nekkul dem bëkk dem ñu lay supporter ngay ki patron yi nga ñëwaat fekk ci terrain bi di leen commenter ak ñom di waxtaan ak ñom parce que ñom manam yow avant nga doon li nga doon ñom nga nekkalon donc bo dé ba doon dara bis bo leen ja affaire ku melni man man tab ko man ko fi la ma nit di jaay mu wala wax bëgg xam nga comprendre dara nga sari man dara quoi en fait donc man boko jaay baaw ka sa ba jël combat bi ñu wax la sa bopp man xoolal bëgg dem dem dafa am sama ben gain day sen sama live quoi da am ben waay jo xamanteni ni euh, dafa am luñu ñu soqoon ma ko yéeg eh, mu na ma ko lii ngaa bëgg nga def ko muy lepp lepp soo ko def moo après dama ni booy nag terroriser nga gars mu ne ko yow gars yi dañuy dofal rek gars yi ci kaw lañu nekk dof rek mais boo seqi koo xam moo la gën a dof gën laa rakkaaju barke alxuraan di nga xam saa en fait ñu dañu bëgg jàpp yéene ñëpp quoi maanaam mhm. ñoom ñu yor di instance yi ah, bu ñu bëggee Diomaye ak Sonko noppalu nañu kon ne nekk ak seen booy yañ nekkaloon di mhm. jàppale seen booy yi nekkaloon jege mhm. booy yi di waxtaan ñoom di message messageante ñoom maanaam wan leen ni bal wallahi am na ñoo xam dañ may woo nañ ma ba Samba Seck bu ko neexee mën na génn téem téeméer ko bàcc di moom wax ñuy waxtaan quoi nga xam ne carrément am ñoom dañoo mer ci nit koo xamante ni Seck jaar nga ak ñoom fu ne mais léegi dañuy wane ni que dañoo nekk de pour lan la loolu yaa ngi soreel sa bopp projet bi yaa ngi soreel sa bopp ñu bëgg projet bi yaa ngi leen dàq ci projet bi fekk na yow say geste say geste sa ko def maanaam nañu gën a dal rek gën a wàcc a nekk ak gars yi boo nekkee ñoom di message gars yi soxla wuñ sa xaalis gars yi booy message ante ñoom rek dañuy kontaan ñoom nañu xool na i waaye benn Aminata Sarr Ndiaye woo message léegi ni kontaan nañ un oh, booy booy booy booy bu sant seen booy bi booy xaw ma booy seen booy boobu ñu fal kii euh, Azer mu jékki-jékki message ay ancien copain mu xool ko daal ni i jaay diw moom message xolam sedd benn anibal jékki-jékki ni ma koy defee jékki-jékki woo ma te ne waa mais jiwooñ ci loolu nekk nangam sangam loolu loolu dinaa leen affaire du alal du am am du kii affaire bi yëg la mhm. nit boo ko yëgëree mu kontaan nit boo mhm. ko yëgëree mu kontaan mais nga gis ay mbaam moo xamante ne dala doon dala doon woo suba ngoon guddi bëccëg pour intérim léegi mu jot intérim far man dama lay jàppee mbaam quoi ak poste bu la may mbaam laa lay man man sama bët mbaam laa lay considéré parce que arrêté ba dégg baar ku yowaar lijjanti ma la doon mais maanaam amoo considération ci man benn valeur amatoo parce que mbaam nga parce que ni comportement hmm. comportement mbaam mais di waxtaan ak di yëg nit ñi yëg di leen message de temps en temps booy dama jël serve ah booy déglu xool ci soo nekk rek mais non non non gis nga gis nga gis nga gis pour pour li ngay wax eh, man bi ma ñëwee Sénégal bi ma ñëwee Sénégal maanaam patriote yi kenn xamul laa doon seeti ñi nga xamante ni. Eh, bi ñuy nekk ci bi ñuy bi ñuy nekk ci gatsa gatsa bi maanaam man ñoom laa doon dégganteel xam nga di jëflante di jëflante ak ñoom maanaam bi ñuy nekk ci digg gatsa gatsa bi xam ma ñooñu boo demee Sénégal dem seeti leen maanaam lu lay nekk ci ñoom. man man di nekk ak patriote nii nii nii nii nii yéen ñii réseaux sociaux gars yi bi barki alxuraan karim moo ma gënal fuuf di xamante ak ay responsable ak ay ay ay man dem naa Sénégal ba ñëw responsable yu bari xolal bu ma bu ma ñëwee bi ma ñëwee Sénégal bu ma leen woon barki Serigne Touba Mbacke dañ naan ma ñëwal seet ma billaahi wallaahi wa taala yi te bu ma leen demoon seeti dañ may ubbil ma toog mais aw moon sax seen temps xam nga lu tax man nekk ak patriote yu ndaw patriote yu ndaw ndawaan yi maanaam moo ma gënal parce que parce que ñooñu tey ñooñu mooy ñi nga xamante ne ñooñu ñooñu ñi nga xamante tey ñoo ñoo mën a ñoo mën a ñoo mën a ñoo mën a indil réew mi njariñ ñoo mën a gañe combat bi parce que ñi fal ñii dañ leen fal ñii rek mais ñi fal ñi ne ci suuf buñ leen jàppalewul duñ dem fenn ñoom xam nañ ko mais comme naan nee na dafa am loo xamante ne ci nit ki la modeste parce que nit dangay modeste aduna amul solo parce que yow boo xoolee boo xoolee deux mois trois mois ci ginnaaw yow tu yow nekkoon dara te te te fi nga toog signature moo la fa bay c'est important li ma la ni mhm. parce que kaaw Cheikh Niang mi ngi ni signature moo ko defoon signature moo ko fa bay te ëllëg yow mun nañ la fal tey nga fàtte ni ñi est comme naan nga maanaam xeeb leen mais ñaan ñaar ñetti wala benn at ñu ñu dindi ñu defaat signature nga jóge fa te bu boobaa di nga bëgg retourné waat bëgg jëflanteeg ak booy man dama gëm ni ni ñu maanaam ku ci am possibilité jël ci xale yi dugal lañ ñu liggéey maanaam nañ ko def loolu mooy dëgg ñu ñu fal na nañuy jàppale baas bi continuer di jàppale base bi waaw ni ko jamin saana maanaam ñi ñu fal nañuy jël ci seen salaire di ah, cotiser di cotiser ci base bi ci suuf comme naa ñu ñu mën a dimbali te yàlla tax maanaam ñu leen ñu leen di dimbali seeni xam nga ni Pastef bi ñu jëlee réew mi ba léegi lu grand la daanaka ñu bari cotiser tuñ ñu bari par bu naan parti bi dafa war a parti a continuer di dund. est ce que xam naa xam nga yooyu noonu maanaam ñi tax cotiser guñ mooy bu bëri ay frustré te frustré bu nekk bëgg ko wax ci kaw du cotiser. nan la demee nag loolu Jamil Sané di bañ xam nga Jamil Sané daa nekk koo xamante ni nii maanaam moom jikkoy làkkat la li gars yi di munu munu suuf moom la dem ci ñu ko dej ci ko teg ko foofu ñu leen waxtaanee ko. xam nga problème bi mooy problème bi mooy euh, euh, euh, nit moo lëndëm nit moo fu nit moo mën ñëw di la ree di waxtaan ak yow nga yaakaar nit ki ni la mel wallahi wonu la kanamam wanu la vrai visage am visage bis boo gisee nga suur ko nga waccu ko parce que xamni ki du ko bax mais problème ané est que mënoo xam nak parce que la ya'lamul ghaib illa Allah li neub yàlla rek ko xam nit mëno xam lu neub manam yow li nga mën rek moy sa rafet sa jort mais tay bo démé ba xam yene nit ñi comporté wo da ngay xam ni carrément ki du ko baax waaye nag li nga wax da nga wax da nga wax lu am solo moy big mo leen fa tek te bigga leen fay jëlee te big bu la fa jëlewul yàlla mën na la faa jëlee wala nga def erreur bu la fa jëlee kon donc loolu moom lu ci jàngee rek mooy que ni man di wax digg fay yàlla Babacar daal man dal xaw ma daal man dal sama xol bi li ciy neex wallahi du ay nguur du poste quoi man sama xol bi li ciy neex man du poste quoi Babacar yitteewuma ko sàkkuwuma ko soxlawuma ko te lii mooy bi may dix fois ma koy wax ci laa parce que nit ñi damaa wuute ñoom ci bëgg bëg àdduna man mm. xoolal kër damaa dem bay def live ma toog ma bëgg a def benn live ma ngi toog nii de def live wallahi instant bi ma waxe yow 2000 francs mo nek sama poche mais mangi big big go xamanteni contane non non sa poche mais compte sa poche la 2000 francs ne compte bi de francs ne je pare. gars yi compte Sénégal aw sa compte compte non en fait en sa compte Sénégal compte banque. dem la dem benn compte fa <laughs> américain yi ni na leen indil papier bu war a nekk ne man d' accord naan national dem ma demaat ci waaj leen tëjaat leen compte bi maanaam joxaat leen ma sama xaalis maa fii di ubbi compte fii américain signalé compte bi naa leen naa naa signé ay papier yu wane que maanaam damaa am nationalité américain maanaam balaa maa si kii compte bi man leen kaa leen aar leen ma li ma fi déposé leen ma ko waaw man leen baax na mën naa boobu te amu compte non en fait du question que li may wax maanaam xaalis bi mais maanaam nit ki mën nga am ay deux mille cinq mille teewul nga bëgg. parce que jomaay mhm. wax na ko maanaam alal du nekkul mooy kontaan lu nit quoi ay poste ay privilège nit ki da ngay mhm. am lu ñàkk fayda mais nga kontaan jovial nekk ci boo xamante ni maanaam parce que affaire du alal quoi wallahi mhm. affaire du alal mais maanaam euh, euh, gars yi dañuy fol rek commencé ñànqaliku di di di di kii xam nga ndeysaan baadoolu bu alal dab dafa métti dafa am na directeur yoo xam ba léegi a dugg avion barke sëñ Tuubaa dina parce que ku wax man la directeur boo da nga koy doo ko xam kon <laughs> ñoom ñoo xam ne yàlla moo leen bind modestuñ mais nag jëwriñ attention ni mu ñàkkee ñu modestuñ ñu modestul am na ñoo xamante ne ñoom naturellement noonu lañ mel amuñu yitte loolu day lool loolu day am seen nit na ñoo xamante ne moom naturellement amuñu yitte ñooñu yàlla ah, noonu la bi dee quoi non am na am na am dafa bari ay cas quoi am na ñoo xam ne modestuñ am na ñoo xamante ni dañoo amul yitte loolu loo loo sama waa ji de moom sama waa de moom buñ ko fale testé naa ko Hannibal waaye moom moom i moom fa dafa gën a jàpp moom daa gën a dëgër le am na te gis nga jóori waa AP waa APR yi ku ñu yeewul barki alxuraan dootoo yeewu waa APR ah, yi benn bokk yaakaar yi kuñ kuñ ci jox responsable Antoine Diop mii nooy dégg dafa daw est-ce que loolu ma leer la loolu. non loolu gars yi laa dégg ni ko mais amaguma ci. amaguma ci dëkk bi fu mu man de bu génne fu mu mënti nekk naa ko fekk. mais ñoom ñoom mais mandat d'arrêt international dafa am jëwriñ. mandat d'arrêt international dafa nga bañ a génn toog foofa ñu bañ a génn toog fañ toog rek ku leen di jàpp. mais dëkk boobu tey dëkk boobu dëkk boobu tey état Sénégal maanaam bu dee dafa soxla ministre bu def musiba daw foofu mais dañ koy delloo ay convention la. fii daal ñi daw moom ñi daw moom. ñaar dañu leen fi ñaar rek fi instant bii Mame Mbaye Niang Mamour Diallo ñaar ñun daal moom mën nañ leen indi mais ay masali masali ku ko delloo ban delloo ñëw dafay biri fi lam bu taxaw dafay soxla rek nañ ko bàyyi mu toog foofu mais Mame Mbaye Niang ak Mamour Diallo lañ soxla ñi ci des moom. garaaw ma ma ma masali ñi ñi wul woon sax moom. xamul ma ko dara masali moom garaaw xamul ma ko dara. Mame Mbaye Niang daal moom. Mame Mbaye Niang moom na ñëw rek. Mame Mbaye Niang moom non mandat d'arrêt international bu ko état bi lancé. koo nekk gaa da lay jàpp ak ak ak ak booy boobu Pape Ndour ñom ñaar ñu réewante gi neewon ci dekk bi man moom ñooñu moom bëgguma ñu baal leen mam pap mari Ndour ak mam bay ñaan nan ay damay ut ay sarax ko xaliss sonko deux ci <laughs> ak xura mam bay ñaak ma pap mari Ndour bu leen jappé te bu hmm. ba par bla bla ñu yub kasu ne leen yub rebeus ñuy fanan rebeus ci bu waxante booy leen risu te mam bay ñaar dafa wang boy nga leen risu bo jangé ci pap mari Ndour rek nit war nga modeste bo jangé ci pap mari Ndour maanaam nit buñ la joxee cër cëral la da ngay modeste parce que àdduna dafay dox gis nga ñi la puus ba nga falu ñooñu bu leen mës a fàtte barke alxuraanu karim gis nga jëwriñ ñun nag dafa am loo xam ne habitude sénégalais la sénégalais gis nga ki ko gën a dimbali kooku lay gën a la en général kooku lay gën a fàtte tey ba ci si sunu famille yi sax sarax bi nga xamante ni yaa koy defal lépp xam nga du la naw du la respecté sax en général sénégalais sénégalais mo mo mo mo mo am mo am mo am nature bob te lolou lu bon la sénégalais mo meuna a dem je comprends nit nak bu sonné ray bopam ba nga falu yow waro ko fàtte loy def da nga war di ko suuraale te ko wara gëna djégé waxu ñu nga jël ay milliards jox nit ñi wala ay millions parce que amoko ko mais yeggi gi xam nga di taxawu na nga daan taxawoo bu ñu tourné gis la est ce que comprends nga yoy dafa am solo waaw xëy na nag bu ñëwé manam di nga bari yenn responsabilité yi nga xamante tay yow doto am temps lu bari mais il y a le minimum est-ce que comme naan parce que gars yi dofuñu gars yi xam nañ ni buñ la joxé ndombal tank liggéey mi ngi lay xaar mais il y a le minimum waaw ah, très bien révolution ko moy reconnaissance bobu est-ce que comme naan nga gars yi da nga daan tok lundi dimanche da nga daan toog lundi ba dimanche di nekk ak ñom temps bi mayeetu lako ko mais fexeel benn fexeel samedi bi nga nekk ak ñom wala dimanche bi est-ce que comme naan buñ la buñ la daan jot chaque jour bu la daan jot chaque jour téléphone léegi temps bi mayatu ko mais fexeel xam nga benn yoon wala ñaar yoon ci weer bi sax ay alors naka mu def ci jàmm xam nga des fois toog ak sa gars yi invité leen lii c'est ay détails la quoi est ay la est ce que comprendre nga ngay xool suñu bopp jëru ñun bu ñëwee Sénégal mais lu mu xat-xat-xat suñu copain dinañ leen invité sax benn yendu wala toog ak ñoom waxtaan ak ñoom est ce que comprendre nga donte amoo loo leen jox mënoo leen jox leen satisfaire loolu nag loo loolu loo loolu dafa am solo maanaam loolu loolu loolu dafa am solo parce que da ngay sóoraale mais malheureusement nag sénégalais moo <laughs> moo teg ndombal tànk foo xamante ni maanaam dafa jéggi dayoo est-ce que comme naa na maanaam nostalgie bi ñu am ci nostalgie bi ñu am ci ndombal tànk moo doy waar tey xoolal Ousmane Sonko rek Ousmane Sonko da ngay xool da ngay xool moom moom yaakaar ni kii li mu yor sax bëgg ko ak jomaay ak jomaay ci seen i wax seen i jëf ak ak seen xoolal kii tamit xaw na ma bett kii tamit xaw na ma bett ay la modestie. Eh, dafa dafa dafa pour man dafa pour man dafa nekk kii mais bi ñu ko falee dama gis ni. dafa engagé wu de trop quoi dafa. Ah, dafa engagé wu de trop quoi loolu. maanaam nga li ma sooroon une deux temps ma ne ko booy bu gàtt bi. mais man bi ñu ko falee dama gis euh, enthousiasme bi mu àndal ak ak bëgg bi ak sawarte bi ak di dem xoolee vrai problème man tox na man xaw li ma ko xawoon mer yëpp wàññi naa ko quoi. am na ci ñooñu ay benn ñaar rek yoo xamante ni jàpp naa ne ay ay ay yetu day lañ rek. bu leen xeexee taq amul ci ñaar am na ñoo xamante ni. lii ma lay wax nag maanaam képp ku sonn ci projet bi maanaam daj ci lu nekk bu ñu la falee ñi sonn ci projet bi yëpp am ci ndombal tànk ñooñu da ngay gis modeste bi ñu àndal ñi si daj lu nekk nag laa oh. mais ñi bee mooy ñi nga xam ne dajuñu si dara ñëw nii rek par par par ñëw nii rek par par chance xam nga ñëw par chance lang ci nii rek lang ci nii rek dañuy jox la ndombal tànk ñooñu ñooñu. ñooñu ñooy beew eh, idi idi de barke idi ko ko jox ndombal tànk ay idi ko joxoon ndombal tànk nga gis warkat de non mais mais ñun ñun dañu war a am ab direction rek ñun ñi ñun laay wëri war nañu man na ma jox wóori rek man nampe rek man da addu ma adna ba yéen la sonn war na la jox direction bu ko defee bu ko defee bu ma ñëwee Sénégal ñu ko dama nga laaj fa bi di ñëw fa bi di ñëw dafal ndànk xaar dafal ndànk ñun waa ak lu réseaux war nañ am direction. non man bu ñuy naan man li ma ah, soxla man namp yi laa soxla man namp yi lañ ma jox may séddale namp yi namp yi moom gis nga dama naa dama damay jël ay postes stratégiques na namp yi. non ñun waa non ñun non. ñun ak ak namp yi boo ñoree namp yi boo ñoree directeur parce que dañ lay soxla parce que dañuy gis ku daal la woo waa mais jëriñ xale bi moo na nangam sangam sa man ah kii de moom jëkkër amagul jëkkër kii de mën naa la koo jox nangam sangam ne waa ah, kii de dama bëggoon kii de man namp dañ ma jox xale yi ma ni ma séen yow yaa séere xale yi jigéen ci ci pop ci parti képp ku ci war am jëkkër yaa koy maye ma loolu doy na ma sama nooj bëgguma lu metti jaru ngeen ni retante booy barke sëñ Tuubaa man li may man sama man méttiwu ma man soxla ma dara xaalis xam naa nuñ ko amee man du ma jul di ñaan yàlla ay xaalis xaalis xaalis xaalis yàlla da koy ñaan ay wér ay wér ay mujj gu rafet ay àjjana ay musal la ci safara mais ay xaalis xaalis nga koy utiliser xel pour am ko di rek non non non mais loolu na pour mu am il faut il faut ñoom ab direction xam nga ne nga ne direction ji xale ji direction direction yi tuddee ko direction yi <laughs> non bëgg quoi direction yi direction bu ko Ah. yow yow man yow man ngay féetale wàllu casting yow léeg-léeg wàllu casting bu ñu yàggee ci ñoom góor jigéen dina fi jóge parce que peut-être dañu bëgg ay mbir nàmp ak yooyu de ñoom dañu sawar xool dañ ko jël ci passif te buñ ci wax dañuy sérieux bu ma waxee ba tudd mbir nàmp yi dañuy kontaan dañuy bég parce que ñoom yooyu leen dundal ko apatro di man bu newoon ci réewum góor jigéen léegi mu jeex fi de xam naa ni moom ñëpp xanaa idi ngay jox wàllu casting bi bu boobaa moo lay wëral casting idi ñu may tas wëri casting casting mooy def casting idi idi mu ubbi clinique amul lu ma ci jox pos ndax xam na ni ma mel naa may seeni mooy gynécologue bi xoolal loolu xoolal boobu wax bu ñaaw donc kii lan la ma xamal lu salte ba tax mooy jox dama gynécologue idi jënwaar moo bon idi yaa bon idi mënumaa jubag moom waaye non moo xalaat naa ba xalaat kii mënumaa jubag parce que kii dafa bon mu ne man gynécologue laa parce que lan xam ci ma ba tax war maa def gynécologue non non Babacar li ma est-ce que xalaat mooy seeni mooy médecin chef bi seeni mooy chirurgien bi seeni mu xaar mais mu ni seeni mooy gynécologue bi ci hôpital moom lan la xelam dem ba tax mu jox ma gynécologue non bu ko <laughs> yaa ngi retaan de. Ah, daa daa jàpp ni loolu nga yee loolu rek moo tax. gynécologue quoi. Euh, patriote yëpp nañ ma <laughs> ni <laughs> jëy bu ma rey waaye. maanaam mu ne heureusement heureusement bi ma takk ay ay écouteur ba madame déggu la. non mais ça non li ma madame daf ko war a dégg parce que dafa ubbi clinique di fal ay poste ba egg ci gynécologue ni jox naa ko. bala ma naan Seydou mi ngi yàq sama jëkkër ji heureusement. yëpp na ma muy def ak tànkam yu dëngu yooyu. ki daf ma yab quoi. daa xam ne daa daa xam ne daa xam ne daa xam ne lool. dama bëgg affaire yooyu. daa xam ne daa xam ne daa xam ne mooy nit ñi nga xamante ne dama bëgg yooyu dama bëgg affaire yooyu. xëy na daa xool sa CV rek xam ni loolu nga xarañ ak loolu. booy dégg nga arrêté booy noir. jël ba ci kanam dégg nga. waaw baax na. bala mu yokk musiba xëy na CV bi CV bi la xool quoi xam nga gis. baax na dama rek coupé rek yow génn rek compétence. comme idée tax nga yóbbu ma ko. xam nga xam nga xam nga xam nga nit ku ne nit ku ne ci Sonko dafa ne compétence compétence ak diplôme. yow loolu nga xam ci man yow loolu nga xam ci man loolu mooy sama compétence. ah ah, ah idée ko wax man waxuma ko de ah <laughs> idée li tax li tax li tax li tax mu xool la xool la ba ni la ba ni la ba ni diplôme. ba jox la cër boobu mooy daa daa gis sa CV xam naa xam naa daa gis sa CV. booy euh, na ci laa booy bu leen ma def seen morom quoi booy dégg ngeen pap du ñëw booy xam ngeen dem gis ngeen samay at 40 ans la am booy juddoo ko na ngeen fexe ba da ngeen ma respecté quoi bu leen dégg affaire suñu collègue tax ngeen ma yëpp quoi. Idi yëpp na ma ko Idi. xam naa CV bay riche rek Idi yow CV na. nee na ci base ci base compétence ak diplôme lay fale la xanaa Babacar nag yaa ngi saboté de Babacar yaa ngi saboté de est yaa ngi saboté de sëni daa gis da nga am compétence en gynécologie dañ ko waxee gynécologie li quoi idi na idi idi bàyyi bi ay ofta ay ophtalmologue <laughs> bi ay ay ay ay kii nu mu tudd ay ay sage femme ay sur chirurgien bàyyi bi bàyyi bi ay ay dentiste ay neurologue <laughs> bi yooyu ne la gynécologie gynécologie bi la non non en fait en doo ko bàyyi ba tax lan moo tax mu jékki-jékki xalaat pos yëpp ne ma ma Idi ci man dara ba ma waxal ma loolu non kii de de front bi jeexul sa CV ci pet gisu ko gisul CV bi ah. bind leen ne booy te ngeen a yaru <laughs> moom moo si ñëw te ngeen a yaru ngeen arrêté seen yi ngeen bind. ah daa naa daa gis CV bi CV sëñ bi. waaw mën na nekk de mën na nekk de noor noor mën na nekk de mën na nekk Babacar ko wax loolu de mën na nekk de wax dëgg yàlla. te moom <laughs> man gisuma man man gisuma sa CV man kay musuma gis sa CV ah mais mais mais compétence la ah xam nga. Babacar baax na. naa ngi coupé live quoi parce que dama xam naa ni booy ñu ma commencé yëpp ndax nga booy seen commentaire yi ñu may commencé di bind ay ay affaire seen seen ko law fooy mujj a ñam foo ma mujj a lu ma lu ma xam yëpp bis ma ko <laughs> waaye jooju baal ma baal ma ci kanam gynéco waaw rafet na eh, ok gynéco ah ma ma ma ma bàyyi ngeen laa ba laaj bi su may pare di ko bloqué ma ma si ngeen ngeen capturé bon capturé yi daf damay bloqué image du génn parce que su may pare dama koy bloqué yéen ngeen sonn ut loo loo loo ut di nekk loo mën a fen waaw booy rafet na ok jaajëf gynécologue seen gynécologue seen jàmm coupé génnal xaw ma nuñ lay génne moo tax génnal <laughs> anyway fi moom doo fi capturé dara papi di ñëw Ba man ziar live moom bu soobee yàlla boo capturé tamit dinaa ko dagg te bo te bu ma gisee nga poste leen ci live bi yow dootoo fekkee jotaay yow bu ma organisé yow. anyway grand jël mo stars ma tàmbali Boy te ngaa yor boy booy du ma sam morom booy booy ut fooy nga dem uti stage fooy defee stage quoi voilà c'est-à-dire maa ngi dem quoi parce que neex ba neex sonn te wax dëgg yàlla yéen may commencé di kii Aliou ah mais gars yi liggéey bi dañ ko def lu ñaaw moo tax Sénégal xam nga dañoo dañoo dañoo dañoo garaaw liggéey boobu moo tax boo gisee baa ko ni mu ci retaane pourtant liggéey bu noble la dara nekku ci mais ñoom ñoo ko garaawal Sénégal ñoo garaawal liggéey boobu lépp ak Idy Diène Wade rek def ak deqam bu boobu. baax na maa ngi daw sama gars yi kontaan na you know live neex na waxtaan nañu fi lu bëri remercier naa ñu ma remercier ñëpp temps yii nag damay sol kap lu ko waral xam naa ko. mais mooy loolu yàlla baax na non doyal naa damaa sonn billaay damaa sonn une heure réer na kontaan naa sama gars yi ngeen jëf waay yàlla na yàlla defal ñu ñëpp jàmm gën boole xol yi gën a tàpp xol projet bi yàlla muccal ko ñëpp ñu naw ñu nekk ci jàmm di ko def comme ni ñu koy di di ree di bëggee réew muy dox ci jàmm teg ci voie développement boo yu bëgg xëy yàlla may leen xëy teraanga yàlla may leen teraanga ñu naw am soxna yàlla may leen soxla sama genre gi bëgg soxna yàlla may ñu soxna tamit xam nga ñëpp ñu nekk ci ci ci mbégte bi daal parce que loolu moo lu lañ mérito parce que xeex nañ ko sonn nañ ko daj nañ ko ci donc kon buñ amee lu mel noonu rek sant yàlla la yàlla nañ ko suñu borom defal mooy ñu ay njiit jub yu maandu yu ragal yàlla yàlla mën na ko yàlla nañ ko suñu borom def voilà kontaan naa sama gaay waaw Alfousseyni wax nga dëgg gynécologue boobu wax nga dëgg nga dëgg waaw mais kontaan naa am problème Aliou jëggante jaajëf waay kontaan naa waaw Noir kontaan naa Thiam Bamba Samba kontaan naa Momo Junior you know kontaan naa sama gars jëf euh, Papi Digno Moustapha Diop you know Abdoulaye Sylla euh, Awa Sadou Sène sama doomu baay kontaan naa ci ñëpp quoi. booy sama saako bu moolee may ma ko barki sëñ Tuubaa ba ma ko may ma jël ko man am naa fit sa bu moolee ba ma ko may ma jël ko te ku baax la ba ma ko may rek ma jël ko yaa ngeen jëf sama gars yi rafet naa ñu def loolu